waaye yëglekaay bi ni géejawaay tàngoon na barki dem lu ko indi mooy ñàkk déggoo ndax gis nañ ni daal ñi nga xam ñooy garde corps Aliou Sall rek ku Macky Sall ji moom ak garde corps Aïda Sow Diawara ñoo fa laale laale yu métte métte métti yëglekaay bi ni mbir mi sax xawoon naa metti lool ba am na kun jàpp ni bët xawoon na caa tuuru yëglekaay bi ni yàlla baax waaye kon xaw tuut làmbaay gën faa ñaaw l'observateur moom itam ñëw ci benn mbir boo xam am na Khalifa Sall ak coow li ko topp bërki démb ba tey ci atteewaat bi ni atteewaat mbiram ca comédie ba ak caisse d'avance ba ca mairie Dakar ba yëgle kaay bi ni Khalifa Sall daal fi ñu toll dañ koo coincé dañ kepp naj ko ci wiir bi ndax ay avocat lan doon sukkandiku muy li nga xam mooy CEDEAO haute cour ba fay atte li mu wax amuñu benn preuve bu koy firi démb ci kanamu attekat bi lii moo tax mujjewul sotti yëgle kaay waaye nag avocat yi dañoo mujjee gedd li nga xam se ne bi mooy mooy kon procès jamono bi nga xam président Sall moom ma ngay wax mbirum Khalifa Sall moom ma nga ca campagne ba ndax fi bi faram fàcce na ko ci wàll gu yaatu la du jeen tam ñëw ci beneen mbir bu soxal njàng mi ci biir réew mi kaay bi ni réew mi day njàng mi nux nux amatina ca ñu ngi waaj jongante yu jëm ci wàllum euh, bac général waaye bu defu ndànk day dina am gàllankoor ndax waa sayam suñu ngi ca xeex bu metti ñi ngi wone seenu mer ak ba futtu sax la ko indi daal jàpp na ni fi mu toll naak moo am duñ duppee ay quota jëm ci wàllum formation diplomatique gi nañ cay doxe état da caa doxalu dëpput ak yoon lii moo tax ña ngay xeex ngir wane seen naxaru xol lëkkalo ji tamit yëmu ci yaa oustaz ñëwaat na ci lu soxal li nga xam rek mooy eh, mbirum eh, kii di ah, Cheikh Hadjibou Soumaré mi nga xam daal mi ngi waajal dugg ci géew bi bëre ma nga woon démb ca eh, Touba neen daal dina leeral mbir yi lépp dina leer bu ñu àggee ci 22 juillet gi dina dugg ci géew bi wax ba xam ne doon candidat am du doon candidat waaye lu mu ci mën a doon jàpp na ni moom faaw dana wone boppam ndax nee lu waay di def bala nga koo matale faaw nga dem ci këru diine yi waxtaan ci ak ñoom ba laaj seen xalaat ci wàllu guni mel lii la yéen a kaay xëyee yaa oustaz ah, jërëjëf Modou Mbacke ñu sant la gërëm la. ma lay gërëm bu wér di la ziar. diisoo kañ la. Euh, incha allah tey ci ngoon. tey ak say gan waaw dama bëgg nag bàyyi noonu. Mhm. mu doon surprise. maa ngi nas euh, di waaj a d'accord nan bàyyi ba ca ci pandaw ga incha allah. yow booy togg ñëpp yi xaar boo yekkee mu neex. yi allah eh, déggal jërëjëf. <laughs> jërëjëf Modou Mbacké roy ci yow gërëm ba bu baax tam ah, yaa ustaz. Uh-huh. Eh, gërëm bu baax yaa sayda di ko ñaanal bu baax moom itam. wallaay ñëpp a ngi koy namm di ko ñaanal jërëjëf di ko namm nañ ko nag incha allah. incha eh, allah tabaarakalla jërëjëf. jërëjëf merci beaucoup. Modou Mbacké la woon ci këru yëglekaay ñu sant ko bu baax gërëm ko yëglekaay bind rek la ñuy def waaye moom it lii rek lay def macha allah yàlla yàlla jàppale ko Euh, euh, seydaa moom it di ko ñaanal jàmm waaye bu leen bu leen bu leen ko euh, bu leen ko namm lool dana dikk suba incha allah xam naa gars yi ñi ngi bëgg a takk morceau yu xonq waaye jaragu ko gisoo tey sax ma def mbaxana mu xonq ngir di xaw a ñaxtuwaale tuuti waaye incha allah subaak ak jàmm ñoog moom la ci palaato bi bu soobee yàlla Oustaz Mouhamed Diop ñu nuyu la ziyaara la xam naa sa nuyoo mooy ànd ak lan ngay jàngatee ci këru yëglekaay yi tey waaw ñu ngi sant borom bi subhaanahu wa taala di julli ci yonentam Muhammad sallallahu alayhi wa sallama di nuyu ñi ñu bokkal plateau bi di ci jiital sama yaayu bopp Mère Thiam di ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla gën a defal tawfiq di yónnee nuyoo yu sell ci soxna Zeynab di ko wax ne tahurun incha allah yàlla na ko yàlla yëkkati ci ci jàmm mhm. ah, kër yëglekaay yi mooy procès bu démb bi Euh, nga tribunal dafa nekkoon bërëb boo xamante ni euh, bu sacré la su dee mënees na ko tuddee noonu mais suñu demee ba nit ñi dëkk euh, fa nit ñi jàppee na fa mbaxane yi doonee benn cest koy waxee xaw terme bi la mbaxane doonee doonee mm-hmm. nit ñi demee ba yaakaar yeqeeku foofu mooy ne nit ñi amatuñu yaakaar ci justice loolu bokk na ci liy jaxase réew mi te réew mi mu ngi dawee benn alire boo xamante ni dafa mel ni nit ñi bàyyiwuñ ci xel parce que mbir yi nga xamante ne moom mooy dajaloo pour ab réew mën a avancer bu ci nekk mu ngi yëngatu jàng bu baaxul réew du avancer te ñun ñëpp xam nañ éducation bu Sénégal li nga xamante ne moom lay traversé mm-hmm. bi ci gën a essentiel mooy li nga xamante ni moom mooy justice maandu xam nga yàlla subhanahu wa taala ci alquran dafay wax ne dafa yëkkati asamaan tàllal suuf wa wadaal misaan mu teg li nga xamante ne mooy balance moo ne balance bi bis bu bis bu ñàkkee équilibre mandu bis bu amulee rek ah asamaan dina yëngatu suuf dina yëngatu bu boobaa euh, désordonné mooy nekk ci biir société bi mm. te yàlla nañ ci yàlla subhaanahu wa taala musal en tout cas lu ñu war a xoolaat la bu baax a baax ci ci wàllu réew mi li may wax tout le temps rek euh, yàlla na yàlla subhaanahu wa leeral guddi xalifa ba mu génn ci ci ci jàmm euh, beneen bi mooy li xew géejawaay mm-hmm. ci ay fan ci ginnaaw ci ay weer ci ginnaaw kaa bu ni mel xewoon na ci biir diggante ay kilifa ci biir APR. Mm-hmm. je pense que ni euh, mu ngi xewoon boori Fuuta. Mm-hmm. ci ay kilifa yoo xamante ne seen i garde ñoo xaw a laalante. Mm-hmm. en tout cas du lii la xaar ci ñoom en tant que ñu donte dañuy wax ni ku bot bukki xaj xaj bëw la mhm. kon yow ya wara xam na ngay roggante nan ngay boté mais en tout cas du li lañuy xaar ci ñoom en tant que euh, man bok en tant que citoyen du mhm. li lay xaar ci mhm. ñi mat ñi ciité sama réew ma wara xaar ci ñoom modèle sha allah jërëjëf euh, oustaz mohammed ñu sant la gërëm la ci jàngat yoo am solo yi liwis yëgle kaay yi loo jàng wa man jàngat bu gatt rek la ci la ci def mooy euh, jamono bi dafa mel ni wopp bu wopp bu maget la rien ne va au Sénégal dara doxul bu fekkee ne secteur enseignement doxul secteur santé gis nañ y a deux jours ñu hésité en grève ba ay patients yu bëri jóg di ci kaas justice depuis plus d'un an ça va plus donc le euh, Sénégal fa lañ jëm est-ce qu'il y a quelqu'un pour réguler ce pays là et quand il va le faire dëkk bi fépp ëpp fépp ay donc ñun xaw ma wara ñu war a wara def benn affaire bi mooy euh, li xew démb man personnellement man koy ñaawlu parce que je pense pas que ku mënul dem tribunal suivre correctement ce procès génnaat nank même fekkee né contano nga génn parce que tribunal institution la waruñu fa dem du UE ben juge waruñu fa dem di saga ben juge waruñu fa dem parce que loolu bu ñu fa génnee juge bi li ko def defuñu ko juge bi institution bi li ko def corps bi yëpp ko def donc du affaire yoo xam ne ci ci bi procès Khalifa Sall pas ay sénégalais journaliste na fu ci bi na fu pour suivre procès et je pense que ñun ñoo a suñu image dëkk euh, du lu rafet euh, nañ ko daw nañ ko moytu euh, nañuy respecter suñu institution di respecter quoi que ce soit mesure bu jël du ñun ñoo ba décision bi donc formule bu gën a respectueux bu gën a responsable bu gën a taaral suñu image dëkk euh, bu ñu utiliser. bu bokkul ak yuuxoo yi. waaw bu bokkul ak yuuxoo yi. merci. jërëjëf. <laughs> Euh, mère yaa ngi noonu loo ci jàngatee. waaw ma naal de. waaw maa la raw nag. indil nga ma pomme ba orange. ak lu ëpp loolu sax nag lu fay lekk rek yanu naa ci coppati. loolu nag laa bëgg pomme yeeg orange ak am na Sénégal bu dee yooyu. jus bi am na jus bu neex bu am foofu indi nga ma ci. man nag yi fa am ci lekk yëpp nag xam nga jotuma koo xam ndax. yóbbu xam nga ko <laughs> xam nga ko yow Saare Demba Mor xam nga ko. xam nga yooyu la yooyu nga fay gis sama moo demee du may xool yow. waaw yow moom yaa ngi woon ci diine ji <laughs> fàtte woon ci ñaan. taarika la ñaanal la ñëpp nag lay ziar am nuyoo bu ba jara sa sa sa jaamu soxna si la. <laughs> ñu ngi lay nuyu maa ngi koy fay ak ñoom ma di nuyu Oustaz Mohamed. Mhm. di ak sunu gan mais mair bi xanaa dafa daw. maire ban la. <laughs> maire bi nga toog fii. fii fii ak fii de xam. soxna si toog foofu sant Sarr dafa daw de. waaw ah, fii de Seyda bu yiw bu baax lañ fi xam. waaw yépp mu ngi ci affaire organisation ay sabar ak ay tànn bi moo tattal te ñëw. <laughs> yooyu rek lay dox. moo tax ñëw ah. dafa am soirée. tiito bi nga ko waxee. soirée lay organisé moo ta mënut a ñëw. non kooku ci waare la ne pas baax na ate mm. <laughs> yooyu moo tax mënut a ñëw. <laughs> ci waare lay dox di ko nuyu bu di ko ziar. li ma wax ci sa de presse bi. Mm. ñaari garde yi xeex. ma ne il faut ñu xeex parce que seen patron yi bu ñuy xeex ñoom bu ñu xeexee tamit seen yëf la kenn du leen ci blâmer. loolu rek seen jikko la ndax bu dee yow man ak yow dañuy xeex chaque jour samay doom ak yow dañ seen dañuy war a xeex. Mm-hmm. procès xalifa Sall tam am na loo xam ne mooy si oustaz ndax ñun sénégalais tamit dañu foog ne lépp xeex ak yuuxu moo koy faj ndax même bu juge bi génnee woon ni tëj naa xalifa Sall sax danga war a ànd ak sa ngëm yi ak sa sénégal génn waaye du yuuxu di doon ay taabul di saaga nit loolu dafa rafetul lu tax juge bi delloowaat ko lu taxit mu indiwaat ko ñun daal nee bu ñuy dem ci institution yi ke muy fu nek da ngay and ak sa dal ak sa yu ak sa yar lu ñew rek nga mën ko té xamni ne li la yàlla dogal nga bay té xamni yalla rek mo fi nek loolu rek la amone ci luma ci wax ndox mi dé mom bu tut du ñew ndax rod dé ah sa kër ya nga am jafé jafé ndox. pan yi ñew mo won ndax rod mi da bu sa heures du matin nu may roté nu may xesté rod deux heures du matin ba fajar. ma te tut du ma ñew bu fa ma jéxé ndax rod mi. hmm ah jéx nga ni rod mi ma japp massa ndox mi moom war nañ cee wax <laughs> xaw ma lu xew moom xaw ma santé xaw ma école waaye ndoxum lii war nañ cee wax moom xaw ma lu xew waaye war nañ cee wax moom war nañu létt wala ñu firi ñu man daal ndox mi rek kay sama problème ci Sénégal buy boo lekk waaye ndox jox nañ ko français kii xëy na léegi mu baax ah tubaab bi ñu waat nañ ci ndox mi ah de loolu la wax li loolu la ah amuñ ci lu ma leer dëgg yàlla kon baax na waaw xëy nañ nañ leen ko jox bu leen ko joxee nañ am ndox man d'accord naa jox leen ko. waaye daal nañ am ndox daal nañ am ndox. d'accord jërëjëf ndax ndox ya mataar mataar dafa metti dëgg la. waaw métti na moom ndox mi moom war nañ cee ut saafara. Oh, sonn naa ndax eh, nit ñi sonn nañ lool te ñëpp ngi koy ñaxtu nag. Eh, sëñ Ibrahima Seck. Mhm. Eh, yëglekaay lan nga ci jàngatee. ahuzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim rabbi shirli sidri wa yassir li amri wax waxlul xudatan min lisan yasfu xawli asalaamaaleykum wa rahmatullah Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg kuy sénégalais foo mën a ne yàlla na la suñu borom defal jàmm segam jàmm gën jamaa te ku yàlla defal jàmm nga am jàmm yàlla nañu yàlla defal jàmm yàlla na yàlla barkeel suñuy mbir ba lu ñu yorati mu toll ni jamaa leeral suñu yoon ba fu ñu jëmatu mu mel ni yoonu jumaa yàlla nañu yàlla musal si jommi ak jàmmaarloo yàlla nañu yàlla jàmbaaral kàttanal ñu ba fu ñu mën a toll di sant naan alhamdulilah yàlla na ñu yàlla may koom gu bari ba ñuy mën di joxe. Mm-hmm. yàlla na ñu yàlla may xam bu am njariñ ba ñuy mën di waxe yàlla nañu yàlla may xel muñ ko jaamu ba àdduna bii ñu mën fee texe. yàlla nañu ko yàlla nangul ba yowmal xiyaam suñ jaamu ga du dooni naxe. yàlla nañu yàlla musal si saytaane ki pexeem. Mm-hmm. yàlla ñu yàlla musal si noon bu ñuy pexeel. ku ko dégg na ne amin te xam ne ñëpp laa waxaaleel. maa ngi nuyu ñu ma bokkal plateau bi ñëpp ak lay fay. waaw projet bi moom. Mm. nit moom lépp looy def si àdduna rek da nga cee war a seet yàlla daal ñuy atté njaaxaanaay li ñu war a tëddee kuñ atté tamit ba xam ne attekaay ñoo fi nekk buñ la atté luñ la teg rek nañ ko daal di nangu ndax loolu loolu la yàlla santaane woon mm-hmm. Mm-hmm. loolu daal laa si am na si d'accord am na solo am na solo ñaani am na solo yàlla na yàlla nangu lépp te boole na ko jërëjëf jërëjëf Seck mm-hmm. eh, ñu dem seetaani benn élément del siwaat muy wax ci kalandoo yi xam nga ndakaaru ak ni mu bindoo déplacement yu bari tax eh, moyen de transport yi wuute na njaganjaay yaa ngi fii Euh, tata yaa ngi fi waaye tamit kalandoo yi ñu ngi fi ñu seetaani élément kalandoo yi siwaat ci plateau bi. wutali buun jaaree ko fas mbaaw nekk na lu jafe lool lu ko waral moo di yoon yi nga xam ne dañoo baaxul taxi clando yi ñoom ñoo mën a def dem ak dikk bi ci diggante boobu boobule njëg mi sax yomb na lool askan bi ku ci jóg mun na jël clando dem fu mu bëgg a dem. parce que banlieue boo gisee ñu néew doole ñoo dëkk côté bi léegi tamit ñoom suñu amee xéewal boo xam ni moo leen di jege di leen dimbali ci parce que euh, taxi loo am dema chauffeur taxi clando yi dañuy liggéey waaye teewul ñu ngi jànkonteel ay jafe-jafe yu dul jeex. waa des fois guddi gi nga yab ay ñoo xam ne ni moom nit yoo xam ne ay waaw ay nit yoo xam ne nitu guddi lañu liggéey guddi lañuy def bul xam bu liggéey ay agresseur waaw façon nit bu ne daal ngay yab xamal di si dégg lu ne di daj lu ne si oto yi. beneen jafe-jafe bu ñuy jànkonteel moo di tracasserie policière yi ñuy teg ci seen ndodd daanaka bés bu nekk dañuy jànkonteel lu ni mel. waaw waaw loolu moom ça fait partie du milieu de la route quoi loolu moom bu fekkente ni yaa ngi dawal oto moom yaa ngi jànkonteel ay contrôle toujours waaw surtout que léeg boo yore oto bu nga xam ne nii peut-être xaw na màgget yooyu gars yi lay sonal ci ay visite technique ay ay yenn affaires yi. mbirum soppi parc automobile fii ci biir Sénégal nekk na loo xam ne jamono ji ñu ngi koy waxtaanee ñi nga xam ne ñoom ñoo ŋànku nguur gi bëgg nañu lu ni mel mu mën a am moo waral sax ba ñu dajee ak ñiy yëngu ci wàllum dem ak dikk bi Euh, waa kay jërë ngeen jëf euh, ci élément bu am solo boobu ci kalandoo yi Louise euh, gis nga élément bi seetaan nga ko lan nga ci jàngate bon clando yi boo ci waxee sax dafay xaw a gauche parce que ñu arrangé dafa bëri mais ñoom si seen bopp lan la ci état di gagné waaye ñoom ñoom tam si seen bopp est-ce que farlu nañ ci wàllu këyit ñu ngi wax ne sànq policiers di leen sonal trop fu ñu jaa ñu ak yooyu yëpp mais man dama gis ni da ngay gis oto boo xam ne def na vingt ans. borom jaay ko amul benn këyit mënul am visite technique musul mënul am dara chauffeur bi jël responsabilité li ci yépp ay doomu aadama di leen yóbbu ko indi chaque jour te moom leer na ko ne oto bi baaxul oto bi am na ay vitesse yoo xam ne mënu ko dépassé te dañuy jël responsabilité boobu ñoom rek ñoo xam lan moo tax ñuy dugg ci koñ yi duñu fa nangu yenn donc ñoom seen bopp ñu ngi liggéey illégalement mhm. ñu ci bëri ñu ci ëpp benn aspect bu si bu si bu si nekk mooy euh, clando yi dafa am tuuti indiscipline bu ci nekk mooy par exemple ma jël benn point rek boo xam ne sonal na ñëpp boo demee parcelle nga dem euh, école Dior automobiliste boo laaj tey mu ne la man damay daw école Dior ndax clando yi parce que nu leen neex la ñuy taxawee ci kaw tali bi amul benn ordre embouteillage bu extraordinaire dañ fay créer tous les jours te bu parcelle kese la boo demee mbaaw fi ma dëkk boo demee feneen ak feneen c'est pareil

waa ñu ci bëri ñu ko respecté wuñu seen benn impôt respecté wuñu seen taxe defuñu lu leen war ak euh, société bi lu leen war ak nguur. Mm-hmm. te ñu ngi liggéey xaalis donc euh, li ci war mooy ñu réguler leen gisoon nañ fi daaw daawaati géej ay genre taxe yu yu mel ni yu njool yooyu. Mm-hmm. am bâche ci ginnaaw mm-hmm. aftu yi. yu ñu commencé woon indi si banlieue bi mais wuyul mi nga am ba léegi sax Kër ma waaw waaw la gën a waaw mais gisoo ko si yeneen yeneen yi mm. Mm. donc euh, genre système yooyu dina réguler système clando yi mm. wàññi oto yu baaxul yi tamit il faut ñu accepter que ni ñu parc automobile dafay màgget torop torop torop torop choc yi bëri na accident yi bëri na ñu siy loru bëri na te yooyu yëpp oto yu màgget yi ñoo koy indi yow da nga ciy dugg rek toog rek gaañu defoo choc defoo dara boo ñu lay xoos nga gaañu tétanos après nga décédé donc donc euh, bañu ma clando mm. yàlla na fi yàlla na fi am mm. nit yi di ci utiliser ñëpp di ci gis seen bopp mm. état bi tam di ci gis bopp waaye na baax nañu respecté ñi ciy dugg euh, ñëpp na ci jàmm d'accord jërëjëf euh, loolu mooy jàngata mère Thiama kalandoo ah. yi yow moom xam naa jëlkatu kalandoo bu mag nga ndax doo jóg ci xew yi dugg minuit tey gis kalandoo mun la foo jëm te te Oustaz Matar gis kalandoo bu def accident de. nga hmm. ko soog am ci mbé péage yi soog yi fi am yan waaye dañoo say dugg ci ko. saret bu awee ci péage kalandoo war faaw. mënu fa mënu faaw amuñu ko it. saret bu awee ci péage nag. Ah? saret ba. dootu ko ba ko defoon dootu ko benn nga fa gis. <laughs> ah bu mu awee ci péage nag. Ah? kooku moom xam naa Pout la jógee woon rek. saret xamul dëkk bi pour la jóge woon jóge ci péage benn boobu rek la. waa léegi Ndiaga Ndiaye si appayage nag. clando mais Ndiaga Ndiaye na paquet. appayage laaj ñu la kayit xam nga appayage mu ngi leen laaj bu ndaw. fayal rek romb leen. ah non non non c'est pas ça jàpp nañu ma ci péage bi ndax dama doon filmé. waaw kay loolu la filmé Ndiaga Ndiaye bu rombee ci appayage bu mm-hmm. day fay dem yoonam. Mm-hmm. clando bi su rombee day fay dem yoonam. dañ leen fi bàyyi ndax ñoom dañ ñuy ndimbali de juróom fukk nga dem fi yëg tëngee bokk bokk lañ te waaj jëm bàyyi leen fi. non ñun mais mais màggataay biñ màggat lan moo ciy solution. yow oto yu màggat yi ay di oto yu bees yi dañoo baax. Ah, loolu problème la. métier non non mais métier bu ñu wax nii oto yu màggat yi. waaw bi ja waaw salade. ah waaw ooy xam nga ne kii puut la jógee <laughs> boo xoolee fas bi nu mu wengee puut la xoolal fas ma kii dafa ngeen ne kii de. kii daa mel ne moom da doon bëgg a paase sax fi ñuy fayee. du kees gu weex googu la ñuy fayee. waaw xoolal lii rek Oustaz xam nga ne kii bu ko nee kalandoo jaar fi de c'est <laughs> malaa fi aw mm. keneen mun na fay jaar bi yow mm. réew mii dafa réew mii ci boppa moo xam amagul tegukaay mm-hmm. mais est-ce que waruñ leen a ba ñu ba ñu ba ñu légal fay ay taxe comme taxi yi ñu seet benn système boo xam ne koy doxal ko fi balaa ñuy légaliser ay kalandoo ñu légaliser santé bii nit ñi wér ba pare ndax ñu ngi dee non tey kalandoo yi la ñuy wax waxuñu santé mais kalandoo yi dañuy fi bàyyi kalandoo yi kenn du leen man damay am sama oto soxlaatuma ma ko ma jaay la ko. c'est ça qui est paradoxal. sa oto. nga ma jaay la ko baaxatul. yow ma jaay la ko nga jox ko sa jarbaat bi ci gi ni ko del daw dépense. del daw rudd buul rek. retraité di nga retraité jël sa oto di ci daw dépense. gisoo paa def ko laan dañu retraité. Ah, mën dawal autrement les anciens loolu la comme clando duñu fi jógee de. dañuy gën a yokk ñu ne suñu oto bi ñu ngi koy waaj jaay damaa gis ko ma ko jaay bu def ko clando waaye yow fii ku am sa oto bu yàq da nga koy jaay benn pas muy da route de Boune Tëngéej côté yooyu ay parcelles ak fu ne liberté 6 gi sax liberté 5 am na

xanaa xam nga HLM fi ak fii sax am na clando. téeméer la xam naa ah, pétresse bi. téeméer la ma ngi clando laaj ma le bu ne man dama xew deux heures du matin. waaw la sax say xarit lañ. benn bakk lañ leen fi yi rek. <laughs> Ibrahima Seck. Ah. Eh, clando yi eh, loo ciy jàngatee ci élément bi. clando yi. Mhm. ah clando yi moom euh, man bi ma si njëkk a mooy clando yi social la. Mhm. parce que da ngay nekk si kër nekk xale bu góor mën a dawal amoo leneen looy def boo amee clando boo xamante ni day tolloog sa doole. da nga ciy te si ngay yor famille bi. Mm-hmm. kon nekk na loo xam ne mais nag loo gis si àdduna rek pour defar ko moom ba mu jàkk day arrangé ñëpp. Mm-hmm. mais pour ñu ñëw rek jëlee leen fi wala nangam noonu day metti sax bu ñu ko defoon sax économique dëkk bi dama yaakaar mu daal di sooxe. Mm-hmm. moo tax war nañ leen daal dimbali ñu ñu arrangé leen ba nga xamante ne dinañ respecté ay normes. mais ñu bàyyi leen fi tamit parce que. Oh. <laughs> de social la daal. social la. Euh, euh, am na tamit lu ci doy waar mooy taxi ak yi dañuy fiirante. waaw mais léeg boo xoolee taxi yi li ñuy li ñuy war a gagné. Mm-hmm. dañuy jàpp ne clando yi moo leen koy xañ te ñoom dañuy fay seen i droit ba mu mat taxi yi. Mm-hmm. mais taxi ak clando nag dafa bokkul parce que taxi ñi mu concerné ñoo koy jël quoi tey jii man bi ñëw fii damaa yaa xam taxi laa jël. Mm-hmm. parce que xam nga damaa xaw a taat noonu loolu mooy taxi. mais bu fekkee clando la distance bu gàtt fii ak fii da ngay fay cent franc yéeg wàcc yéeg wàcc. man jàpp naa ne ñoom ñaar seen liggéey jotewul dara daal. d' accord clando boo demee ba koy jël sax course nga koy jël mu yóbbu la fu sori mais. jote wuñ daal ñoo ko taximaan yi man je pense. Euh, ci la gars yi gën a yaxaanale daal cent tamit a cher di nga am distance yu gàtt yoo xam da nga koy a dem te doo dox loolu kalandoo rek moo la mën a jàppale. Mm-hmm. mais mais euh, boo jëlul kalandoo xanaa jël bus. bus mm. waaw xam nga bus ñoom dañoo après kalandoo sax. Mm. si sama yaakaar mais kalandoo ba tey bokkuñ ak ñoom li ñuy def daal. waaw mm-hmm. ah, wuute nañ seen seen liggéey am na. différence te gox goxaan yi yu bus dem. Ah, ah. clando yi clando fu ñuy egg. bus yi di egg d' accord ma ñëw ak Oustaz Mouhamed Oustaz Mouhamed euh, euh, ñun ñu dëkk ci banlieue yi de clando yi moom am nañ fa doole lool <laughs> noo jàngate élément bi. waaw ni ko Cheikh Ibrahim waxee. Mm-hmm. Euh, fee la nem ci société boo xamante ni am na lu muy dimbali ay nit ci seen wàllu intérêt. mais li ñu jàngaloon moo di ne al maslahatu maslahatul amma muqaddama ala al maslahatil xaasa l' intérêt général toujours mu ngi nekk ci kaw li nga xamante ne mooy intérêt individuel su ñu wax individualité fii nii du par benn nit mais couche bi nga xamante ne mooy gérer loolu par rapport ak li mbir mi ñëpp bokk mooy sécurité bi ak jàmm ji ci war a nekk xam nga dafa am ay loi yu ñu tëral ci réew mi oto buy daw dafa war a am li nga xamante ne mooy assurance am nangam ak nangam ay kayit yooyu moom du ñu encouragé kenn ci réew mi ak loo ko ti indi ke lay ke nga bañ a euh, dëppook loolu mm-hmm. parce que dafa am loo xamante ne moom lay dellu si waat ci biir euh, ci biir kafa réew mi mm-hmm. seulement nag ci wàllu euh, kalando yi ñoom ñu ngi joxe seulement dafa am pax bu muy jàll laata muy jàll ci mm-hmm. laata muy dem ci bu nguur gi parce que kalando bu nekk ñun ñëpp dañuy jël kalando boroom kalandoo bu nekk saa buy xëy ci biir permeem dina jël 1000 francs wala 500 dugal ko si. Mhm. nga xam ne bu ko joxee yow boo tombe waatee mu ñëwaat da ngay dégg day wax waa ji ne ko jaar naa fi sànq. Mhm. bi maanaam jaar naa fi sànq joxe naa laissez-passer hmm. léegi nag bu fekkente ne ñooñu di nangu laissez-passer yooyu ñooy dund ak clando yi kon clando du fi musa duñ ko musa régularisé hmm. régulariser hmm. ñaareel bi mooy clando faw mu am parce que bu njëkk sareet moo amoon ngay fay par exemple boo jëlee comme ville bu mel ni mbuur Mbour voiture moo fa amoon comme Tëngéej voiture moo fa amoon Kaolack ñu dem ba léegi voiture yi amatul te besoin nit ñi ñu ngi fi ba léegi parce que am na ay gox goxaat jàdd jàdd yoo xam ne bus mënu fa ñëw kon faaw nit ñi am li nga xamante ne mooy clando da ngay jël par exemple boo demee Mbaaw diggante route nationale ak li nga xamante ne ci biir dafa sorianto wala cité Mariam Fall mhm. foofu euh, faaw mu am clando nga dem jaxaay boo di du moins euh, tawfiix ak yooyu nga xamante ne fi dëkk bi nekk kii dafa sori kon faaw mu am clando mhm. léegi nag nguur gi moom rôlam moo di ne nit ñi lii lañ soxla nan laay fexe indi système boo xamante ni dina wuyu si besoin samay euh, samay popula euh, population bi ba pare defal leen loo xamante ne dafay sàmmoon tekki moo xam ndax dañuy régulariser wàññi yenn euh, mbir yi ñuy jagleel yenn oto yu baax yi ñu mm-hmm. xool ndax dañ koy teggi mm-hmm. par rapport ak clando yi nga xam ne mm-hmm. clando yi dinañ mën a faj aajo nit ñi ba pare jéem a dëppoog charte yi nga xamante ne moom la ñuy tëral par rapport ak catégorie clando macha allah am na solo comme exemple réew mi ñu jógee Maroc boo demee am na fa mais euh, da ngay xam ne yii mooy kalandoo yi utal nañ leen. nu ñu mel seen melokaan. effectivement taxi tamit ma fa. comme jëlee muy dem dëkk dëkk tamit ma fa. Mhm. mais lu ci nekk rek buñ ko organiser. pëccëxoo bañ ci am dana ci am solo. Euh, Oustaz ma def nga armation. man waa. Ah, ban ceinture bi. <laughs> nga def wala euh, karaté. Je suis en la def après bi def self défense. En <laughs> ah, self défense. Euh ñu sétane ben ci euh, yoyu nonu taekwondo. Euh Louis, yow ban nga def? Man def na judo pendant 18 ans. Judo pendant 18 ans. Hein? J'ai même été championne du Sénégal. Ah bon? 18 ans nga wax? 18 ans de judo. Faté nga ko wala ba légui <laughs> Non, mais ça y est nak dama jëm mak. ah d'accord kon de mu sori bu bu jaaree nii del jaar beneen côté bi dégg nga boo si jaaree <laughs> mère Thiam yow aar maasio nga def wala laaj maasio def lañ sool dëgg yàlla ah dugg nañu def judo a ah. karaté man non yow nag waroon nga def ah judo ah. def naa judo def naa judo def naa def naa fa quatre ans ba léegi yaa ngi ci man dara mbaa da ngay guddee de hmm, waaw moo tax ñu xam nga bi sama papa mu wax naan jigéen nga def benn sport parce que pour sa défendre. Hmm. dañ daan ban bañ suñu mu xamul li fo mooy ni photo yi. Hmm. def nañ def nañ ko de. wax na fàtte woo. ah maa jéer yi. ma jege xam. ma jege xam. maa jéeri wala bul ma jege. bay lay bul ma ko ma jege xam. <laughs> waaw d'accord. sama bëti loxo kon ñu seetaan élément bi dellu siwaat euh, handicapé yi nga xam ne ñooy def euh, taekwondo ñu seet ñu seetaan ko dellu siwaat incha allah. dama daan bañ. discipline bi nga xam ne ñu seen ceex wàññeeku ñoo koy faral di def réew Sénégal nag bokk ci dëkk yi nga xam ne duñu faral di def bile discipline tax na ba maître Latir initié bile projet ngir ñu bokk ci championnat yi nga xam ne dañu koy amal ci àdduna wërngal këpp man depuis euh, euh, quatre ans maa ngi ciy travaillé Euh, am na benn handicapé bi nga gis nii chaise roulante moom depuis quatre ans mi ngi mi ngi fii ak yeneen ak yeneen mi ngi travaillé maa ngi maa ngi jéem ñu créé benn équipe nationale euh, de para taekwondo lañ ko wooyee euh, commencé na mais ñu ngi xaw a tardé ñun en Afrique par rapport ak les pays d' autres pays africains comme Éthiopie. xaar bi dafa yàgg ba ne léegi naa anticiper pour def ko pour jéem a mettre en mise en jour les autorités. Euh, du taekwondo en général et les autorités sportives. Mon maître Bilé, de Hamlet, anam discipline. dañuy avons pour pour euh, problème handicap des yeux handicap des pieds handicap des bras mais euh, comme équipe para taekwondo compétition tant que moi. Nous ñi nga xam ne ñoo am tàng compétition problème ñoom ñoo koy def léegi commencé mais man damay former parce que j'ai commencé ñi nga xam 16 euros jours lañ comme kii toog si euros jours la nekk mais formé naa ko si beneen côté parce que taekwondo géej la d'ici semaine prochaine on va mobiliser encore beaucoup d'handicapés qui vont venir pour travailler parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de talents qui viennent au niveau du Sénégal. Nous parce que c'est des catégories de catégories là, problème catégories On a besoin aussi des, des, des minimes, des cadets, des juniors et des seniors. Oui, Lago bi di rafetlu li ni mel muy ñaax itam ñi nga xam ne dañoo amee laago ngir ñu ñëw bokk ci bile projet. man stage bi def naa ko lu mat euh, deux jours mais je naa ne si avantage. si je souhaite ami les personnes adaptées je vous souhaite la bienvenue parce que c'est une source intéressante. mu nekk stage ñaari fan yi ñu jagleel ñi nga xam ne dañoo amee laago li mel maître Latir taxaw tem ngir créer équipe nationale para taekwondo li mel muy xamle yenn saay day daal di jànkonteel ay jafe-jafe ci yenn woy laago yi ba tax na muy ñaax autorité yi ngir ñu jàpp ci ki nga xam ne mooy secrétaire fédération sport du Sénégal di xam le ne fédération bi dina def kémp kàttanam ngir gunge leen ci seeni bëgg-bëgg Euh, jërë ngeen jëf euh, ci élément boobu noonu la para taekwondo euh, Oustaz Mohamed bii moom da nga ci mën a wax <laughs> sama genre gi moom xam naa puisque rek lañ ciy mën. <laughs> ay handicapé yuy def armation lu am solo la. Hmm. benn mooy dina leen yëgloo que ni am na am na lu ñu am ba léegi. Hmm. c'est-à-dire. Eh, yàlla subhaanahu wa taala bu jëlee sa lenn am na leneen lum la bàyyi. Mm-hmm. kon le fait que ñu am initiative bii nii def li nga xamante ne mooy eh, def paratay taekwondo. Mm-hmm. et eh, xaw na dëppoo ñu nekk nii ci seen chaise parce que non nekk ci chaise roulante bi moom ma jaaxal tuuti. parce que mm-hmm. taekwondo d'habitude tànk lay gën a développé. dinañ utiliser loxo mais tànk yi mooy gën a la ñuy gën a développé que li nga xamante ne moom mooy yeneen kii moo tax. am na solo ñu ngi koy ñaanal yàlla subhaanahu wa taala na ci yàlla def li nga xamante ne mooy mooy réussir parce que nit ki tout le temps war nga mën a am loo xamante ne moom nga xam euh, pour mën a euh, défendre sa bopp mm-hmm. bu fekkente ne làmmiñ la la yàlla jox na tamit nga nàmm bu mu mm-hmm. défendre sa bopp bu dee loxo la la yàlla subhaanahu wa taala jox tamit nga nga kii parce que li am solo mooy nit ki man li ma am nan laa ci déparé pour mun a jëriñ mhm. loolu laa jàngatee ci ci. Euh, surtout li nga wax noonu ñu yëg ne am na lu ñu dese. effectivement ak ñu yëg ne tamit bokk nañu ci. société bi c'est important. loolu moo tax projet bi mu am solo dañ ko mhm. war a dañ ko war a jàpp. macha allah parce que nit ñi dañuy d'habitude comme ni mu amee ay handicap yoo xamante ne dañuy basket. ñuy mhm. def euh, handball ak yooyu. pourquoi pas mun na def. mun nañ def li nga xamante ne moom mooy te ki di formé wax na ne géej la maanaam ku man ki doon rek mën na am nuñ la formé. effectivement ba am loo mën a jëriñoo ci métier mi. yow tamit nga xaw a dugg ci Serigne Daara day. Euh, waa da waa d'accord <laughs> man kay après danañ ci ma xool waa ji dana euh, karatéka ñu ne ko yow loo jàng mu ne moytu kaa. <laughs> maa ko euh, wax ci élément bi. waaw élément bi am na solo parce que man je pense que savoir se défendre sax diine la. nit day mën a aar nit day a donc euh, ñu ki am initiative euh, ay ay ba ñu a je pense que lu une la te aar lu lu def nit dafa lu def nit dafa sama genre yi nga des fois dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy donc poser calme day calme et tax nga am retenue donc euh, vertu yep nek ci bir war na tax ñep war ci bénéficier wu. day toj sa xol dal day toj sa xol effectivement. donc je me rappelle ñun bu ñuy def euh, parce que man bi ma amee 2 ans la commencé judo ba ma 20 ans. Hmm. donc j'ai fait 18 ans de judo. donc da ngay xol yow bo bo doon judo bo amé problème ci mbedd bi école wala danga war xex sax ba nga daj tourné gis kenn mu ne ah na la boole maître do xex hmm. donc day tax yu bari Euh, doo ci doo jaar donc euh, ñu jël handicapé yi initier leen ci ci sport baax na ci torop torop torop ku am initiative bi tamit ku ñu war jàppale la ku ñu war a jàppale la mm. vraiment lii moom c'est c'est à saluer d'accord mm. jërëjëf euh, Louise mère Thiama mm. looy wax ci élément bi waaw maa ngi koy defal Oustaz Makhtar xam nga mos nañ fi wane benn handicapé bu ñuy dóor eh, Oustaz Makhtar xam su defoon li Oustaz Makhtar ah. ma jox la benn exemple bu ndaw waaw man sama maam ki jur sama yaay Judo la judo la champion d'Afrique la woon Sénégal ñëpp xam nañ ko ñu tuddu Gata Model mhm. Ba may fat may wax rek ne garde corps Senghor la woon mais mujjantal bi dafa mujj euh, perdre la vue mhm. da woon gis parce que glaucome la amone mhm. mais très ko woon judo ci glaucome bobu da doon jàngale judo pour dire que handicap lu yalla buntu bu yalla tecc rek ubbi na donc di wax nit yi bu ñu décourager jamais bu du tax ne amoo loxo rek mënoo def benn yàlla amul lenn lu nit mënul def ci àddina hmm. donc yow yaay am force def ko yow yaay am envie def ko yow yaay am motivation def ko yegg hmm. nga def ko hmm. maanaam lu ne lu ne ngi nelaw ci nit mais na fexe ba yee ko daal voilà donc du loon gis mais fu la jàpp yow pare nga <laughs> donc euh, macha allah waa mère Thiama nga yeggali ma ni ko am na benn handicapé bu ñu doon dóor ASP bi di ko dóor si pousse pousse waaw xam nga bu fekkoon sa defoon na li mm-hmm. maa ko defee. waaye moom tamit xaw na fayu de. <laughs> boobu yaa ngi maro ñu wane fi benn ASP mu tiim benn handicapé di ko dóor dóor yoo xam ne. Mm-hmm. kon boog il faut ñoom tamit ñu def waa wàññiwul dara xam nga nekk handicapé du complexe yàlla moo def loolu. man mm-hmm. vraiment daak ànd naa ci te sport daal aar sa bopp. dafa baax. Mm-hmm. man ni ma gis ba tey boo ma jege woon ba mm-hmm. def ma dara sama biti loxo rek xaju ci nit. maa la ko wax mm-hmm. biti loxo. naa la moytu rek. <laughs> bu baax. ok <laughs> ni nga may kii dama jox rek bañ. laaj ma laaj ma xale bu góor bi ma doon fonto fekk ma sama garaam bu dimbali bi ma ko biti loxo fii def ni daf ni jigéen dóoru ma. ma waaw kay ah, yow moom war nga cee na ndax da ngeen di guddee. ah di guddi yor ay koppar <laughs> sama yaay moom bu mu entraîné na teel a wàcc. yéen sax si yaay dem xew am ay ñele ju yu ndaw rek. deux heures du ngay ñibbi te dañuy fekk si langue yi. Ah. di la jël photo. Mm-hmm. ñu ne maire bi gis nañ ko ñu koy jox yooyu ne war nañ ko bàyyi tamit sama ma leen ci loolu. langue yi ngeen war a baay di la photo ay deux heures du matin. <laughs> mais langue euh, guddi moom du pour langue. waaw d'accord danañ ci tem. man kay gàddu koor gàddu koor kay maa ko war a wut nag. ministre yi man doog ma wut gàddu koor. Hmm. kese xanaa ma jël si bàyyi bàyyi guddee gi rek. mënut ta ñàkk te ñàkk gi. da ngay bàyyi guddee gi rek. Cheikh Ibrahim ah. guddee mënul ñàkk. Eh, Cheikh eh, bi lan nga ci jàngatee muy armation judoka yi. Mm-hmm. ah kii way laa koy de. Mm-hmm. dama laa natt dañ koy muñ ndax si la ñuy xamee noo toll. Mm-hmm. déglu ma ma nettali la ñu fi jaaroon teñ natt woon leen bañ ko muñee la ñu tonni. natt woon nañu yonentu yàlla ay yóbbu ba mu ko muñee gis ngeen la mu tonni. natt nag feebar da cee gën a métti rawatina bii ñu naan handicapé ndax ku mu xas gana si dootul amati pexe waaye ku mu jaar nga muñ ku mu dal nga muñ foo jaar texe laago taxul a làggi ndax laago mooy maanaam ku cëram wàññeeku si yaramam muy lu daw yaram waaye kenn warul leen daw mbaa ngay foog ne yaa leen gën yaram nanu leen yërëm bët bu ñu muur ba borom mënatu gis xar-xaramu ay way juram mbaa loxo bu ñu téye ba borom mënatu see defal boppam lu am njariñ mbaa tànk bu ñu téye ba borom mënatul boppam këram mm-hmm. waa réew mi handicapé mooy lu ñu war andi ay pexe mm-hmm. bi si jiitu mooy fépp fu ñuy nasee ak di fa noccee nañu leen fay gis di leen laaj seeni pexe mm-hmm. yombalal leen dem ak dikk ba heure bu mu leen neexee ñu ne ma dem te dikk président de la république yow laa adressé sama lettre bii handicapé yi waratuñoo jënd matériel waratuñoo am lu leen metti bay defi kuréel kuréel nee leen xërëm ma leeral te bu ko kenn ree handicapé yi nañ leen di reeloo bërëbu fayukaay yi fajukaay yi jëndkaay yi jaayukaay yi bu leen fa kenn di raaloo ministre de l' intérieur sa intérêt premier mooy sécurisé l' intérieur kon yow soxla handicapé yi waru laa réer ministre de la santé maa ngi lay sant bala ngaa defati discours di santé na ngay wax si santé handicapé yi mel ni dañoo perte seen ab sant waaw handicapé yi moom. macha allah. waaw merci ko junni. ko joxal ma ko junni. bravo loolu ban suraat la ma taalif la taalif waaw macha allah taalif kan mooy ci arab mooy taas <laughs> taalif kay wolof la Bachab joxal ma ko junni xam naa lu ma xam nga dafa am fu muy ràcc ci jëmale ah, dégg mu ne mooy taasu ci arab taasu ci taasu góor <laughs> ay wolof yu tooy xepp la wax nga naan arab taasu xali taasu góor xanaa taasu buy jàngale de baax na fekkee ne tas buy jàngale la. jërëjëf Sey euh, Ibrahim ah. kontaan nañ bu baax. macha allah macha euh, intervention am def na ko euh, def na ko taali ñu sant ko bu baax gërëm ko. ñu dem nes neskis ñu dellu si balaa ñoo dugg ci sunu tem tey incha allah. allahumma salli ala démb lañ ko dooroon dañ koy wéyal tey sàmm kàddu gor kàddu nit kàddu euh, démb am na yuñ ci indi waaye tey danañ ko gën a yaatal rawatina ci liggéeykat yi maanaam ñi ñuy sant moo xam tailleur ba la moo xam mécanicien ba la ouvrier yi daal cadre général lan moo tax léeg-léeg euh, mbir yi di tardé suba dana noppi fii ak fin du mois dana mo noppi ba ci entreprise yi tali bi fi ak euh, un an dana pare mu def deux ans euh, kàddu fan lay féete foofu yooyu yëpp danañ ci dugg tey incha allahu taala dañuy doore ci sunu gan gi euh, taalifam yu am solo yi Cheikh Ibrahim Seck macha allah li mu indeegum am na solo waaye dañuy siwaat mu gën ñoo indil yu gën a am solo ci thème bi nga xam ne moom lañ jëkkate Cheikh Ibrahim lan nga nuy indil tey ci kàddu nit dafa war Euh, am kàddu nit dafa war a sàmm kàddoom lan nga ñu ci indil. waaw dama naan doomu aadama di say àdduna daa am lu mu war a àndal. rawatina bu bëggee jëriñ ay waajuram ak boppam bokk na ci xool ay àndandoom te bañ a doon ku ndaw te lu mu metti metti nga bañ a daw rakk ndaw sa ren na lay jaral daw ba boo fàttalikoo sa daaw sa yaram daw na ngay nangu dugal tey dégg ndigal te boo sukkee ci ndax bul di teggi ndawal na ngay xaar bañ la dogal. loo mën si lu baax nanga koy def te bul di ndamu ndax ndog ndog dafay dabe defal ndànk ndaw dawal ndax nga raw nit nag day sàmm kàddoom hmm. sàmm sa kàddu nag dalay dimbali si sa nekk fii sax si àdduna moo sàmmal sa kàddu ba boo di ba ku dégg sa làmmiñ ne a ndaw dëgg na nga sàmm sa kàddu ba ku dégg rek ne a ndaw hmm. noonu la war a demee waaye joxe rendez-vous comme man tëyeer laa

waaw tailleur yi ci lañ bokk. tabaski gaa ngi nii di ñëw. Mhm. korite gaa ngi nii nañu ginnaaw. Mhm. tey ñu bari solo ñu seen ñawu kori fi. Mhm. te sa mbokk tailleur yee ya ko waral. dana pare. dana mat. nga sa dugal keneen ñëw nga encaissé doo baare. ñàkk baare gi. mooy indi problème yu baree bari. lan moo tax sa mbokk tailleur yi baaxoo wax. ñu baal ma ci kàddu gi muy dëñ. loolooy thème bi. Mm-hmm. Euh, loolu en tant que téyër bu toog mën nga leen représenté. Mm-hmm. wax ci sa turu bopp yow en tant que téyër nooy doxalee. Mm-hmm. waaye tamit loolu nga xam ne ñëpp a koy jooytu mooy boo yóbboo sa ñaw ñu jox la kàddu loolu dëñ. heure bañ la waxoon duñ ko respecté. wala nañ la waxoon ne noonu lañ lay ñawalee duñ la ñawalee noonu. waaw nit moom nit na dëggu rek tey wax dëgg lu mu metti metti nga bañ a dëng soo bañee ko fudd sa ndigg déglu mooma dénkal am na ñoo xam ne dootuñu dëpp dellu fañ dëkk am ñu leen di jëpp ñuy sëgg am ñu leen di saaga ñuy déglu ndax dëng ku lay jàpp na la jàpp ci dëgg ba lu ngeen yàgg-yàgg soo waxee mu mën la déglu lay bàyyi na la bàyyi ci dëgg ba foo ko seen mën a siggi dëgg moo dàq woor ba ngoon jot tëdd yeewu war a xëdd nit buy jigéen buy sëy nay déglu tey déggal nay raxas ay ndëbam dëpp nay dëgg ay tànkam duggi te bu ko jëkkëram soxlaa nay tëdd sa jëkkër bu la gëddee na nga sëgg donte yaa nekk ci dëgg loolu boo gisee ma génne foofu na mm. xam nga nit da ngay eh, dëggu rek. waxal tamit tudd jigéen ñi waxal rek waxal sa wax bu tudd benn jigéen ak say bi ah. nag laa ah. xam nga ah, nit waaw comme sa loxo bi nga téye ko. waaw nit na dëggu rek si lépp looy mënti nekk loolu sàmm sa kàddu dafa dafa day ñëw ci dëggu rek. Mm-hmm. waaw su fekkee loo narul man yaakaar naa ni waroo ko wax nee nag euh, wax dara def ko yàllaa ko man mm-hmm. mais nit sàmm sa kàddu. loolu nit mun war na warees na koo mën a def. Mm. boo boo li la wóor ne lii moom mënoo koo def waroo koo wax imprévu bi nag mën na am mun nga ne ah suba laa la jox rendez-vous kat suba comme par exemple rek lu mel nii am nga am loo jàpp ba ba am noo def. lu mel noonu dana leen faral di gaar ngeen wax ne ko nit ne ko sa ñaw pare ginnaaw suba. Mm-hmm. mu ñëw fekk parewul. mu ñëw fekk parewul waaw loolu danay am mais man moom dama ci dama dama koy sóoraale bu baax a baax daal man bu ma leen la samdi yaakaar naa ne mercredi wala jeudi laa ko bëgg a ñëw si sama xol man noon laa koy dundee pour rek même bu mercredi wala jeudi bu ma rawee samedi bi man bañ ma mën a raw bu ma moo tax nag des fois nag xam nga affaire yi mun na bari comme événement ak bari bari ci sa loxo nga nekk benn loxo ndax am na ñoo xam ne nag ñoo lay ñoo lay ñoo lay ñoo lay ñoo la koy teg dañuy ñëw forcé na faaw nga jëlal ma ko da ngay ñëw nga ne ko non instant bi moom baare naa mënatul nekk ñun la déedéet faaw nga jël ko yaa ma doon ñëwal te gis nga damaa tardé problème mu xaalis la woon weer bi moo sori woon dugg na fii fi wax a a ne waaw léegi yow boo demee ba kii mu am na mu demee mun la wax pourtant waxoon nga war na tax tamit lu mu la puus puus nga ne waaw waaw yow boo xamee ne lii mu lay sant nii manoo ko est-ce que waru waroo taxaw ci sa kàddu mu dëgër nga bañ a euh, accepté lu mu la ñaan ñaan ndax tamit bu la ñaanee ba nga jox ko ba nga jël ko mm. mais su tarde mu mu sikkal la parce que mu ne li nga waxoon dañ na noonu da lay demee sax de mais nag ñu si a dafa am ñoo xam ne <laughs> non mënoo see mucc ñoom dañ naan la rek amoo soo am da nga koy jël. Hmm. waaw parce que xajal ma si rek xajal ma si parce que ñu si bari tamit dañuy jàpp ne buñ demee. mun naa am duñ amoon fële fuñ ko kii léegi yow lu tax ñu la ko fay bàyyil bu ko defaree baax na bu ko def parce que instant bi ma ñëw nii ku ma munti demit nii lay demee hmm. mais léegi yow dañuy wax ba bàyyi ko fa rek bu fekkee sa woyof nga nga defar ko bu fekkee kii yow tam nga kii hmm. léegi bu ñeen ne am ñoo xam ne nag duñ mën a comprendre dañuy ñëw dal sa kaw naan la yaa ma ko waxoon yaa ma ko waxoon hmm. mais daal nit moom na fonk kàddoom na sàmm kàddoom na sàmm yéen ñi ci nekk ay patron ci téyeer gi da di former nit euh, dig ko jox ko kàddu ne ko fii ak danaa la ber un an yi ngeen koy dawloo loolu it euh, loo ciy wax. waaw c'est que ber moom maa ngi nuyu sama patron bi moo ngi ba itali sax Badara Sall moom daf maa jàngal métier ba pare nekk sama xarit euh, ber euh, duy sax yow yaa koy tànn waaye day jot nit ki moom fu ñu lay beree day dem ba nga xam ne kii kat mën na ñawal boppam ñu ñu ne la ber nañ la mais dinaa la ber <laughs> loolu daa daa mel ni lu jotagul daal. Hmm. waaw boo ne nit ki dinaa la ber. yow dina la ber mom da wara a fekk lu woor parce que yow yaa koy xam nga ni mën na wala mënul. bu mu man na man nga dikko ñu bari dañ nan la bo mané dana la atelier. nga dem man ñu continuer téy la fa bañ la ber loolu tamit ci sammu kaddu ah loolu mom du sammu kaddu wax deug yalla man day wax deug yalla defuñ mo won non té man mo wax dëgg yàlla fas ma def kenn non hmm. mais amna ah. ñukoy def. wa ah, amna ñukoy def amna ñu lo gis mom xam nga amna ñukoy def. mais nag loolu moom du yoon loolu moom du sàmm sa kàdd nga ne nit ki dinaa la defal nangam ba pare mu dem ba àgg ca loola nga nga nga daal di teggi sa loxo loolu moom du sàmm sa kàddu moom d'accord ci benn laaj laay jeexal ak balaa ma ñëw ci ñeneen ñi mhm. da nga gis koo xam ne ci sa mbokk téyeer yi mhm. day encaissé kenn mhm. mais kii lim joxe bariwul mu toog rek am ñaw xew bu ko gane si léeg am ko ñëw sax ne ko damay yóbbu ñaw Mali wala damay yóbbu ñaw Niger génne xaalis bu bari teg ci taabal ji mhm. nga jël ña fa nekkoon ñëpp seen ñaw teg mhm. jublu ci ñaw yooyu ñële ku ñëw nga lay ko mhm. loolu mi ngi am ci seen biir métier mi waaw am na loolu nuñ koy jàngateeg sàmm kàddu waaw ah, loolu moom dafa waroog sàmmu kàddu parce que loolu moom du sàmm sa kàddu parce que nit même bu dee lu ndaw ak lu bari <laughs> yaw comme xas nga ko jël rek loolu moom mooy sa kàddu gi ngay wax yow jël nga ko ba ne ko suba laa la ñëw wala ginnaaw suba keneen ki bu ñëwee ba gën a bari ba nga ne kii comme moom lu tuuti la joxe naa ko fa tegal yëfam ah loolu moom du sàmm sa kàddu wax dëgg yàlla. non waxal nag sa mbokk téyeer yi nag ci côté boobu noonu lay ñu baree bari ñi ngi dund loolu. maanaam ku gën a fay lu gën a seer kooku la ñawam di gën gaaw. Ah. am na koo xam tey bu ñëwee fay dix mille franc kii ñëw fay cinquante mille franc. Mm. borom dix mille bi koy teg côté. <laughs> te kooku ko délai. Mm. kooku da ngay préféré layal ko mais borom cent mille bi moom ñawam du tardé. ah waa waxal ak sa mbokk téyeer yooyu noonu. di seetaan lu tax mënoo leen ñoom ñaar ñëpp rek comme kii joxoon nga ko rendez-vous borom boko joxe jour hay borom 50000 modou modou la. urgent la. Ah. Eh, modou modou la sax ma ne la day ñibbi gannaaw ko ah. kooku lu weex tàll lay génne. mu jaar marché asalam tey de ba pare. <laughs> waa nga nga nga fanaan fa ñawal ko rek mu jaral la nga def ben sacrifice pour ñawal koku bu fekke li nga naron sax noppalu même bu dé day laaj nga fanaan ci atelier bi diko ñawal nga def ko mais ké tamit waro ko tardel ndax 50000 ké lool mom du sam sa kàddu mom mm. mu ñew nga xay lay xolam tang est ce que sa 50000 dina barkel mais est-ce que mos euh, danaa ñëw ak yow Cheikh Ibrahim jërëjëf. <laughs> Euh, danaa ñëw ak moom. Euh, mais mère Thiama. Hmm. loolu tamit lan nga ci wax. métier métier yi ci cadre général bi sax laay waxee. joxe sa kàddu. mu muy menuisier bi. mais eh, sax ci gën a menuisier ci gën a garaawati sax. menuisier men. menuisier bois bi. Hmm. man fan yëpp ma ak sama tapissier bi bari ki dem lañ doon bëgg a xeex. ëpp naa def duñ tuddante. boo xeexee dina la dóor bëgg a mokk. ngi fi ba démb rek ñu ngi bëgg a jubóole man mu ngi ko def dañ lay defaral sa alal. Hmm. nga fay leen lu takku. da ngeen a waxante woon kàddu mu deñ non bu sa xol jeex waxaat ni <laughs> ma ci wax sax parce que damay bañ wax lu ëpp. waaye ma wax ci tëyër yi ma nekk rek. <laughs> parce que su ma waxee ci loolu rek. Ousmane Mat antu naax loo xam ni rek. su ma paree ñun ñaar fa ñu jëm du neex. non non lay liggéeyloo da ngay liggéeyloo sa xaalis. tey suba gannaaw suba tey suba gannaaw suba te sooyee damay dem ci yoon ñu la jaru ko lii rek jaru ko. dëkkandoo tey doo am hmm. jël say fauteuil jox ko ñu ne ko defaral ma ko tapissé mun la temps nga may fay lii nga may jox lii nga may jox nga def ko ba mu normal mun la gannaaw suba suba gannaaw suba saa yu ñëwee mun la xaaral te soo dee damay dem fi mbaxay doone benn luus ne la jaru ko. yéen fi dëkk. yow nga tok jël ay bang so amé ay gan jox leen bang ñu tok jox leen ay sis ñu tok nga am ay kër ay sis di gis sa bagage ci suuf ñukoy koy mëno ci mënoo cee jot. Hmm? te lélé fay nga ko sax. ya dama waxuma sax ñoom waaye nee naa tapissier yëpp safara lañ jëm buñ dee. astafurlah. maa ko wax. astaghfirullah tapissier yi fay jox ma sama bagage da nga defar ko mu ngi may dé yow waxal ak sa tapissier te bàyyi tapissier. fay fay tapissier. man sama tapissier defaral na ma samay fauteuil indil ma ko. waaw kooku kon baax na waaye man ne ki ki ñu am fii fay mi ngi di ma dégg ca sodi daa xam naa mi si taa ndax am na ñoo dëkk mu ngi ci suuf maa ngi ci kaw ragaluma ko. Hmm. sàmmul kàddoom. moo tax ba ma gisee mu ngi mel ne mus naan xeme tuuti ba bëgg a dee jël alalu jàmbur jël alalu jàmbur sax mayta tey ñoo tey ñoo arrêté ndénkaan jëge fi jàmbur balaa ñu fee na yow di fekk moom fay laay waxal fay tapissier mi ngi fii sodi daa di ma dégg 76 Ibou Ibrahima Sall jox yëfu jàmbur war koo liggéey te liggéeyoo ko ay un an. léegi daa yóbbu say fauteuil noonu téye ko fay. ma nga ca suuf fauteuil yaa ngi ca suuf. ma di ko gis ah ci atelier la ko def mu maa ngi koy mu di ma gis. saa yi ma xëy fay nga fay ba fayam mat. fay naa tabaski daaw ba ñu wàcc tabaski ba jënd duñ ko buuree tout des sa jour ma des na ñaw des na lii. te mën naa ko faa romb mais aw jaadu ma ko fay romb ma dëkkal dem feneen. mais lu tee nga jël ko yóbbu ko ci beneen tapis mu mottali. déet gannaaw toll na foofu. ah moom yor na ko pare commencé na ko defar ba pare na ko eggale rek. Mhm. na waar mooy dëgg de. Mhm. tailleur yi moom bu jaar asalem tailleur moom loolu moom sama yëfa du ñu liggéey seen liggéey te bu ñu gisee ñag bu ñëw. jox leen 500000 ñu bàyyi ñëw sénégalais yi. ah ñàkk am ah? <laughs> waaw dama leen di wax naan leen ñàkk yi ngeen gën a foog sénégalais bu ñàkk yi ñëwee or bëri Sénégal du ñawlu ñu ngi may dégg ñoom Lamine fa la ñuy teg sa ñaw ya ngay ñëw di xeex di xuloo ñoom toog ci kaw machine su guddee ñu jógee seen kër toog ñawal ñaw ñag ba guddi bu ñu xëy di nelaw ngay ne woo ñu filtré sa numéro ki laa xam ne sax dañuy filtré numéro yi ñu filtré sa numéro ba ñag yi jeex ba ñag yi dem ñu ne téléphone bi lañ sàccoo bu ñu utilisé beneen numéro <laughs> loolu lañ lay may payeur yi fii loolu lañ lay dañuy rocc seen téléphone bi puce bi ba ñag yi dem ñu ne dugal ni ko téléphone lañ sàccoo uti naa démb plus. mais mais bu dee ko amoon xew est-ce ko gàddul àq bu boobaa. am na ko am xew dafa dem jëndi prêt porter hmm? da dem jëndi beneen prêt-à-porter ko loolu tax prêt à yi baax fi léegi da ngay joxe sa xaay war a ñawlu ba pare ñu lay dawloo bu ñàkk nee cëpp Sénégal nga ñawal ma téeméeri mbubb nga ne xaaral da koy ñawal kooku day dem fekk ku ñëw ba pare mu sol ko jënd ko dem bala su ngeen pare mu la non sama jigéen nga man sax naa la may beneen ñaw te ñu Sénégal dañoo yomb a baax ngeen juboo ci jeex mais mère Thiam est-ce que du yéen a leen ciy dugal tamit yéen ñu bëgg xew ñii yéen ñëw fekk ku mel ne Cheikh Ibrahima Seck ne la dama am ay ko dimbale ma xew bi sama téyër ba dafa nangam léeg-léeg sa téyër da ngay ndax bañ naa am ak yow problème ah. a morom am ay commande du ma la ñawloo man am ma léegi da am ay commande da nga am ay mais da ngay commencé ñëw si digg bi sax yi ñëw naa commencé man yooyu nga may ñawal ñag bi ñëw nga ñëw juróom ñëw teg ko di ñëwal kële saa bu ñu nga ma ak gis nga bii ñëw naa ko de mu ngi fii ci saako bi fekk yow pour yow mu ngi lay ñëwal fekk ñëwul la dara bis bu nekk police HLM bi tailleur ñag client tailleur ñag client bis bu ne ñu ngi si police HLM bi di defante du fi jóg tailleur yi ñag yi ak client yi loolu dañu ko mooñaale. d'accord. looloo ma jaaxal na. teer ñag ak client. teer ñag sénégalais. Louise Louise euh, euh, yi. Euh, tey ñu bari dañuy dañuy jël seen xaalis. di tabax lu exemple. Mm-hmm. maçon bi ne la danaa la mottalil kër gi wala kër gi dana mat fii ak un an. Mm-hmm. laaj la benn somme. nga jox ko som bi ba ci digg bi mu ñettamal la pour nga mottalil ko wala nga dolli ko pour liggéey bi gaaw fexe fexe daal mhm. ba nga fay ko lépp te da ngeen waxaale woon nga jox ko benn som bu liggéey bi paree mu soog di la fay mais kàddoom yu dëñ mooy koy yóbbee léeg mu naan la problème bi lañ am problème bii nii ba fexe ba encaissé la mhm. ba nga fay ko lépp te liggéey bi matagul mu téye fa liggéey bi muy ci maçon bi muy ci menuisier bi muy ci téyeer euh, bi muy ci tapissé bi muy partout lan ngay jàngatee loolu ci kaddu li ñuy waxtaanee waaw loolu nag wax dëgg yàlla rafetul te bëri na Sénégal dañuy wax ne booy liggéeyloo ouvrier bul ko fay lépp yow na ko desel rek ndax liggéey bi gaaw parce que boo ko fayee lépp rek euh, liggéey bi du gaaw tailleur yi nag du ma leen wax dara ndax dama sonal tailleur yi man ah, tailleur samay xarit lañ mama ummi seen maa ngi koy nuyu euh, am naa tailleur boo xam tamit Cheikh Ndaw lañ koy wax mais dama ko sonal moom moom man maa koy def lu nit wax parce que man may ñew soxla yére bi mardi indi ko ko lundi ci guddi ne ko mardi 9h la ko soxla rek na ñaw wi paré te dina parce que yow yaay tax ñeneen ñi kon seen ñewi tardé. <laughs> wa kon man may tax ñeneen ñi seen ñewi tardé mo tax du mëna wax ci tayeri yi wax dëgg yalla day. sàmm bopp yow ka nga ka la. yow ah? <laughs> <laughs> yaay jappalé nit ki pour kàddoom dañ. non en tout cas mun dal dama ñew jox la ko lundi ne le mardi. neuf heures laa ko soxla moom laay sol pour liggéey hmm. donc euh, tailleur yi moom du ma am lu leen wax mais ouvrier yi dañuy saxoo di sàmm seen kàddu parce que c'est important da gis fan yu yàggul rek maa ngi gis euh, kuy tabaxloo nit këram mais maçon bi léegi mu jël ay ay ouvrier yu bëri benn manœuvre la am hmm. loo xam ne da ko jox délai ne ko dans un mois ma pare li ma ko war a def yëpp doo ko def chaque jour da nga ñëw raax benn côté rek bu ndaw dem donc ki lay faylo mo ciy sonn ndax mom la liggéeyam di gëna yag moy mm-hmm. oubli obligé après fayat ay manœuvre pour ñëw di la jàppale. donc yooyu yëpp ñàkk sax saxo sa kaddu la ñak sam sa kaddu la mm-hmm. té baxul da ngay foog ne yow yaay naxaate fekk ne euh, yow la ñuy nax pour 3000 francs de plus ngay am par jour je pense que jaru ko. Mm-hmm. nga liggéey ko gaaw gaaw gaaw joggé fa am benen contrat bu ëpp solo lolu mo gën donc euh if euh, ouvrier moom bëri bu ak mbam la rek. ku nekk da ngay foog ya nax sa morom.

bu ñu respecté seen kàddu day xaw a doy waar mais tamit xëy na am na lu tax ñu am jikko boobu am na lu tax loo xam ne xaw ma xaw ma mais war na am loo xam ne mais daal feebar bi daal mi ngi fi daal feebar bi ñàkk sàmm sa kàddu mi ngi si ñoom bu baax a baax a baax a baax a baax a baax te secteur yëpp c'est c'est extraordinaire en tout cas ouvrier moom dañuy naan duñu sàmm duñu sàmm trop trop seen kàddu comme tamit du ñëpp am na ñu jub am na si ñoo xam ne tamit lu ñu la wax du dañ ñooñu nag ngay sawar a présenter say nit ñooñu ngay sawar a jokkool tout le temps. Mhm. mais koo xam ne lu mu la defaral balaa mu ngi cee jot nga sonn. d'accord ah. loolu doy na waar waaw doy euh, euh, sàmm sa kàddu mais rawatina ci métier yi ñu tudd nii tey ñu ci bari suul bukki sulli bukki la ñuy faral di def mooy kii na ma jox euh, ma lekk ko di xaar keneen mu ñëw mu jox ma pour ma liggéeyal kii nii ci cadre général bi ci diini. Euh, sàmm sa kàddu rawatina métier mi nga xam ni moom nga nekk comme li ñu tudd nii muy téyeer ñu bari léeg-léeg da ngay indi tiisi sax mu ëpp duñ la ko delloo ndax loolu jaadu na ci lislaam nit ki indi loo xam ne mu ngi war a nekk 6 mètres nga indi 7 mètres mu pare téye benn metre bi loolu noonu ndax dagan na ci lislaam waaw euh, daganul hmm. <laughs> xam nga imaam imaam Abu Hanifa moo indi euh, asla al ci li nga xamante ne mooy al istisna <clears throat> mooy suñu ci wàllu buntuk xam-xam fa lañuy jàngee li jëm ci wàlluk métier mm-hmm. dañuy wax ne assunnau daaminuuna uh, ma talifa ay aydihim mm-hmm. képp ouvrier bu nekk lañ la liggéeyloo bis bu yàqoo da nga ko war a fay parce que baal ma oustaz am na ku nekk ci ligne bi euh, baal ma ci dog bi euh, salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah Adja na ngeen def waaw maa fi yaa ngi seetaan émission bi waa dégguma leen bu baax nag mais bëggoon wax ci Ibou tuuti rek. waa ñu ngi lay dégg bisimilah. waa nuyu naa. oh. waa damaa mënul fay télé wàññi télé. telem lay wàññi telem. wàññil télé bi. dafa mel day laal bouton téléphone bi tamit waaw. waa Ibou ko baax la. ndeysaan. ñoo dëkk wax dëgg yàlla man moom moo may ñawal moo ñawal samay doom. Mm. waaye loolu mm. soo ñëwee ci jour bi ni nga jox sa yëre. xam mm. ah. naa xàmmeewu ma. te yaa ngi Boubacar la xaalidu. Ah, instant yi nii mu leen ñawal na leen sax. dañuy ñawi conférence fayaguma ko. tey laa génn nii pour fay ko bu tëj mais xamoon fan la nekk. après mu ñëw tàggale ba rek gis ko. ndeysaan ma ne xaaral ma wax. nit ku tey la nit ku am kersa la tamit. di sax. la. ah mbaa bëri de man de noonu lañ koy defalee mbaa bëriwul mën na ko koy dee baax na. Mm-hmm. wax dëgg yàlla bu ma xool moo tey bu ma ko ma kontaan man xaar rek ma woote. ndeysaan ndeysaan. ci moom loolu ngay mënuma wax. Mm-hmm. nit ku baax la vraiment. Mm-hmm. waaw bokkul ak sa yor yu bëri. est-ce que macha allah. témoignage bu am na solo. <laughs> am na solo. Mhm, soo fi defoon leneen it damay ragal ñu woote wax ko. lii rek ndénkaane la. ah, <laughs> ah woote bi rek Oustaz Mouhamed la. ci ouvrier yi seetaan ñu jël exemple ci lu mel nii. mooy defal nit ki ba mu kontaan di la ko seedeel. yaa ngi tolloon fa am solo nit nit dafa war a xam li mu moom. Mhm. alladina amanu laa taakulu amwaalakum baynakum bil baatili. Mhm. illa an takuna tijaratan an taraadin minkum nit daganul muy lekk alalu doomu aadama lu dul moom moo nangu nga lekk ko tey da ngay yóbbul ci tailleur li nga xamante ne moom mooy tissu wala léeg sax yenn tailleur yi nga laaj ñaata moo may doy ñu wax la lu ëpp pour boo indee ndesit ga ñu denc ko léeg-léeg def ci njaxas wala nangam jaay ko mm-hmm. njaxas boobu nga jël ay alali doomi aadama yuñ la mayul nga jël ñawale ko keneen kon boko lekke lek lekk nga alali nit ñu bari ñoo xamne bu kelo ak alakhira imagine toi bu alakhira ku petit njaxas bu nek borom japp ci di ko la ko teel ma njaxas yoy fofu amna fa laaj euh, imam teel ma njaxas <laughs> ñu jël ki ci ligne bi ma ah, maaleykum salaam euh, sëriñ bi ñu ngi lay ziara yaa dalo daloo euh bismillah ñu ngi lay dalal ci ndenkané loy participer ok dama duggoon pour nuyu sama xarit bi Ibrahima Seck. waaw Cheikh Ibrahima Seck. man maa ngi tudd Ibrahima Bouarou. waaw mhm. ah, moom comme li ki wax li sànq rek. moom dafa baax yaru. Mhm. bon respecté nit ko baax. Mhm. ñaw bi def su la joxee jour rek boo ñëwee bis boobu même boo ñëwee jour avant bi sax moom day fekk ñaw bi pare. loolu moom man mun naa ko seedeel. macha allah dem ci nekk ak moom du pour du cadre ñaw bi kese kese de la seconde quoi sama xarit la moom lépp lu ma la wax ci laa ci dund bi moom ci Samba Sow dëgg fa yàlla moom moom dama koy ñaanal yàlla rek ba taxaw jàppale ko ci li muy def. amiin ci lépp quoi moom dafa baax franchement. Mhm. dafa ñàkk ci ñaan. Mhm. bilaay man moom dama koy yàlla rek. Mhm. waaw. Masya allah Masya allah jërëjëf loolu loli ci ndénkaane la. Sam mm-hmm. eh, sa kado waral <laughs> ñuy Water di la seedeel loli loolu ci ndénkaane la Muhammad, eh, Oustaz Mouhamad dafa am lu wolof di wax. day wax ne Kula la eh, feesloo moo la yàppuloo. Mm-hmm. <laughs> mais est du ki indi yére bu mola moo la xiirtal ci bu desee nga téye ko fa ba ga bari nga def njaxas jaay ko. Hmm? mais xam nga euh, dafa melni da nga sa dama bëggoon bu ma jeexee foofu ma ne noonu lay amee ci feeskat yi man fooraa laa dëkk mhm. da ngay indi sa nag léeg-léeg dina am ñu maandu ñoo xam ne boo ko joxee dañ lay kii mais am na ñoo xam ne boo leen joxee yàpp ba ba ñuy kii ci butit yeeg yooyu la ñuy jël ci yàpp bi laxas ko ci biir feeskat yi ñoom ñoom daaw sax nga xam ne doo doo doo yóbbaale même loolu daganul xam nga euh, certes arab dañuy dañuy dañuy wax ne almaalu saayib yuallimu sariqa mm-hmm. almaalu saayib yuallimu sariqa mm-hmm. alal juy taxawaalu day jàngale sàcc mm-hmm. mais fii nii soo ñëwee ci buntu xam-xam dañuy wax ne assunnaa umana ouvrier yi ñu ñu wóolu lañ ouvrier ñu ñu wóolu lañ xam nga suñu waxee amaana rek mooy ak kóolute la gu gàllu si sa loos parce que yow danga maa laaj dama laa laaj ñaata moo may doy nga ne ma jëndal 6 nga ñëw nga dagg 6 mètres yi manqué li war mooy nga ne ma ah 6 mètres yi de lii moo ci des nga gis koo xam ne ngorom dina ne la ah lii su ma ko yóbbee du ma du kii moo tax danga hmm. al da nga war a euh, lewlul. lewlul ko. lewlul mbir mi mhm. cest à ay mbir la yoo xamante ne yu sew yu sew yu sew la am na koo xam ne boo ko waxee li ya des dala koy may dala koy may wan ko ko bu la ko mayul mhm. nga xam ne yow jël nga sa àq parce que dangaa fayeeku dangaa fayeeku mhm. yow jël nga sa àq dangaa fayeeku mais su la ko mayul nga xam ne àqam la cest à mbir la wax mu ngi mel ni tey nit tabax loola xaa ciment bi des nit peinture loola siwo peinture bi des moo ko dug lu ñu bind ci contrat bi mhm. soo ko bëggee yóbbu da nga koy wax ne ko ah lii de des na est-ce que mën naa ko yóbbu hmm? béton bi des na est-ce que mën naa ko yóbbu wax ni ouvrier yi bàyyeetuñ ci xel de ah, parce que xam nga lan moo tax des yi des yi des béton euh, yére peinture yooyu yëpp peinture gars yi pour ñoom lu des ñoom moom non lu des xam nga dafa am di nga gis koo xamante ne da lay liggéeyloo ci njaalbeen bi baax na baaxaay goo xamante ne dalay wax ne lu des jëlal maa la ko may mm-hmm. loolu lew na la doom ndax libéré na la libéré na la mm-hmm. mais fekk fekk waxu la ko alalam la moo ko jënd tey su ma su ma demoon ci Cheikh Ibrahim mm-hmm. ma ne ko ñawal ma grand boubou mu ne ma jëndal dix mètres man ma ñëw ci sama xër jënduma dix mètres ma jënd onze mètres wala jënd douze mètres moom su ñawee ba pare xam nga am na yoo xamante ne am na ñoo xamante ne eh, suñ la ñawalee ba pare même morso yi nga xamante ne mo waaw mag magu téyeer yi daan nañ ko def waaye morceau yu sew sewaan yooyu mm-hmm. dañ koy jël lëmas ko ci ab kii nii ne la lii moo des mm-hmm. nga ne ko ah baay lii lu ma koy dayee jëlal mm-hmm. loolu moo taxoon seen liggéey barke di nga gis léeg-léeg ñoom xam nañ ci dara di nga gis tailleur boo xamante ne wala ouvrier boo xamante ne benn chance dina ñëw dina ci gañe lool ak loolu mais du xam fan la xaalis dugg parce que alal ju lewul nu muy tuuti tuuti que mithla charar mu ngi mel ni fett fett bu dugg ci biir ñax bu wow mën na koo taal ñu jël ki ci ligne bi salaamaaleykum maaleykum salaam euh, mbokk mi nanga def waaw maa ngi fi maa ngi si jàmm yaa ngi seetaan dénkaane waaw waaw ci thème bi maa ngi la nuyu yéen ñëpp dama bëggoon a participer si bi mm-hmm. waaw pour man euh, ci émission bi ñàkk ñàkk saamu sa kàddu man dama jàpp ne loolu moo tax dëkk bi quoi. Mhm. par exemple soo amee sa soo amee sa ñaw wala nga bëgg a defar lu sa laal nga dem jox ko ki la koy defaral moom day ñàkk day day day ñàkk sàmm kàddoom ba nga xamante ni léegi yow mujj gi yow boo amaatee dara doo ko ko jox. Mhm. moom bu ko bu ko bëggee def lu mat fukki nit wala ñaar fukki nit léegi ñooñ bu ñu demee ba xam ko si moom dootuñu ko jox dootuñu ko dootuñu ko jox. pour mu defaral leen. Mhm. léegi moom bu ko defee moom ci moom ci jëm boppam dul amati client. Mhm. loolu moo tax bu ñu demee ba ci digg bi moom day métti ci ñoom léegi ñoom ñooy toog dëkk bi dafa métti dëkk bi dafa métti xëy na ñoom ñoo ñoo ñoo ñàkk ñoom ñoo ñàkkoon sàmm seen kàddu. Mhm. fekk na ñoom ñoo ñàkkoon sàmm seen kàddu loolu moo tax ñoom bu doon naan dëkk dee boo gisee tamit ñàkk sàmm sa sa kàddu tamit day tax day tax ay liggéeyante am seen biir. da ngay gis koo xamante ni nii benn menuisier wala tailleur mi am ay client keneen ki amul dara lan moo tax mi am ay client man mënuma am ay fekk na kay dafa sàmm kàddu boo ko joxee ñaw wala nga jox ko lalam da koy carrément da defar amu ci jox la benn hmm. nag si ngàddoom léegi bu ko defee day naan kay kii dafa am sëriñ fekk amul sëriñ <laughs> dafa sàmm kàddoom loolu moo tax lépp lu mu defar da koy jox borom mhm. maa ngi leen di gërëm loolu léegi laa amoon lu ma lu ma doon participer quoi. macha allah lu am solo la. <laughs> wane na ne sàmm kàddu daal day tax euh, mhm. jëm kanam. ndax nit ñi dañ lay wóolu di la liggéeyloo. gis nga bokk na ci li tax euh, ci wàllu métier. tax nit ñi duñu duñu sàmm seeni kàddu. Mhm. foqale ak tama. foqale bëgg a sa morom bëgg am lu ñeneen ñi amul. waaw foqale parce que li waral xam nga nit li nga mën. da nga koy wax loo mënul bul ko def. Mm-hmm. léegi comme euh, question bi euh, Pa Ousmane waxoon démb dafay ñëw par exemple léeg-léeg ci tailleur yi. Mm-hmm. mooy comme ni Cheikh Ousmane wax ni euh, Ousmane Cheikh Ibrahim ni mu wax. Mm-hmm. xam nga Cheikh Ousmane démb dafay wax ne di nga jox nit sa kàddu. par am lu gaar loo xamante ne mm-hmm. du yow ñàkk sàmm sa kàddu la mais bu boobaa yow en tant que doomu aadama yaay jël say matuwaay mm-hmm. par exemple mu ngi ñëw am na ku mu joxoon tey jii ni rendez-vous nga jël si sa kii nii mm-hmm. mais jëlal sa matuwaay ci nite savoir vivre moo di nga woo waa ji ne ko maa la waxoon bis sàngam mais damaa am ngant maanaam war na booy jëlaale mesure yi nga jëlaale numéro téléphone numéro liggéey boo munti boo munti def man gis nga ci wàllu sàmm kàddu ñu may liggéeyal te ma di ma seetaan xam nañ mm-hmm. loolu mm-hmm. man dama lay wax ne soo soo su ma lay liggéeyloo du ma la wax na pare bi sàngam dama lay wax kañ lay pare mm-hmm. soo ma waxee ma répété la kañ lay pare gis nga su jotee su jotee da may fekk maa ngi foofu taxaw léegi sama problème mooy ne ma ñëw te parewul dama la wax lu tax defoo effort bi nga xamee ne da ngay faussé rendez-vous nga yëkkati sa téléphone ne ma Mouhamad bul ñëw parce que lii moo kii mm-hmm. ñi ma ci jëflante dem nañ ba xam loolu suñ demee ba mbir mi di du am mm-hmm. dañ lay ne ah oustaz bul ñëw parce que lii du lii du lii lii du ah, am ci respect la bokk dafa bokk ci respect ak mm-hmm. sàmm ki ngay jëflanteel mais malheureusement suñu ouvrier yi jikko yi dafa dem ba yàqu ba nga xamante ne dafa mel ni règle la ñàkk sàmm sa kàddu yamul rek ci ouvrier yi dafa ñëw ba ci jàngalekat yi da nga jàngalekat yi huit heures ngay xëy te doo xëy huit heures teggi nga contrat. Mm-hmm. Hmm. liggéeykat yi sax. sama tamit huit ngay xëy. waaw liggéeykat yi xam naa suba danañ ci gën a côté boobu tamit leneen la. huit heures ngay xëy. Mm-hmm. cours bi nangam lay def. Mm-hmm. ñëw wuyu téléphone fii nii kii fii nii. connecté fii defoo li nga li nga sàmmonteel. d'accord <laughs> loolu loolu loolu point la bu am solo danañ ci dikk ñu ñëwaat ak Cheikh Ibrahim euh, Cheikh Ibrahim. Euh, ci sàmm kàddu ba tey euh, dégg nga li la mbokk yi seedeel mhm. loolu lan nga ciy jox message comme sa mbokk téer yi lay seetaan mhm. gannaaw euh, côté taalif bi moom xam naa dañ koy dañ koy laf ah, ah. waaye côté bi nga beneen casquette bi dafa am solo lool ci thème bi mhm. ndax ñu bari boo waxee rek téye rek parce que waxaale nga mboolem ouvrier yi nan lañuy ñuy war a def ba sàmm kàddu am na ku ne ci ligne bi ñu jël ko balaa ñoo ñëw Cheikh Ibrahim salaamaaleykum maaleykum salaam na def. ñu ngi sant yàlla alhamdulilah. kàlla waay. yàlla na ko yàlla nangu. ah soxna Zeynab moom dafa xaw kii ñëwul tey. Eh, soxna Zeynab xam naa ëllëg incha allah dafa am ci yu mu nekk. waaw ah, nuyu naa ñëpp mais caamaak dama lay nuyu chaque jour. dëgg la. na yàlla defal jàmm. amiin yaa rabbi. Ah, thème bi ngeen jëng da ngeen ko waroon def chaque jour ndax dëkk bi dafa tas ndax lii. Mhm. kenn du sàmm sa kàddu boo koy def sax yow est-ce que di nga di nga avancé. Mm-hmm. loolu lañ lay wax. Mm-hmm. nit doomu aadama ci boppam dafa war a lu mu dul def bu mu ko wax. Mm-hmm. waaye yow ne diw lii te doo def la am naa koo xamante ne dama ne ko nii moo tax dama ne ko yow yàlla may na la de. Mm. du wax dëgg moo tax ma ne ko yàlla may na la. <laughs> may googu de baaxul. <laughs> day na waar. ah damaa xam dëkk bi loolu moo ko yàq. minute mm. minute booy dee bu ñu sa paat paaka sa put sa waxal dëgg. Mm-hmm. ak lu métti métti rek waxal. Mm. loolu def neel mënuma man moom looloo tax man ñu bëri naan ma damaa naqari de rek. Mm-hmm. moom dafa tàng saa lañ may wax. Mm-hmm. man su ma ne la midi su ma amee empêchement onze heures woo naa la ne la naa empêchement. ah mhm. mhm. dëkk mhm. bi doy naa waar ci loolu moo tax du mën a dox. waaw ah, maa kañ maa ngi leen di jaajëfal waaye émission bi neex na trop man chaque jour dama leen di suivre. macha allah jërëjëf jërëjëf. ak xewal. jërëjëf euh, Seyda Zeynab suba ak jàmm rek incha allah wax naa namu leen ko ndànk rek <laughs> jarul takk morso yu xonq solo naa leen mbaxana mu xonq incha allah bu suba ak jàmm Sey euh, Ibrahim xam nga am nga euh, am na ñu lay seetaan xam la woote fi témoin la lu am solo wax nga ko mais am ñu dugg firndeel ko su ma xamee ne indil nga ma ñaw samdi laa lay wax te yéene ne àllarba danaa ci pare nga xam ne lu mu yéex yéex moom samedi dana fekk mu pare ñu woote firndeel ko loolu noonu le ci sàmm kàddu lan nga ci jàngal sa mbokk téer yi seetaan rawatina ouvrier yi ñu gën a sàmmontewaat ak seen kàddu am rigueur ci seen liggéey ba nga xam ne kàddu dafa foor nit ki nga wax am na koy wax moom bàyyiwu ci xel dem na sax bis bi nga ko waxoon fàtte na ko mais am na koo xam ne ci la lay jàppee wala mu bàyyi la waaw ñàkk sàmm sa kàddu daan noppalul borom ñu bari mooy comme li ma leen wax rek ci taalif bi sànq dangay dox sax léegi da ngay am ay sens interdit. mbedd bi waruma faa jaar. Mm. donte waroon nga faa amee dara. Mm-hmm. ah da ngay man <laughs> comme jàng naa atelier yu bari yu bokkul ñaw. Mm-hmm. dangay ñëw topp fii ci atelier sax nga ne comme ah am na koy ñëw de nu ma mën a toog ci bi xaaral ma daw. Mm-hmm. yaa ngi doon war a gañe foofu noonu comme par exemple moo yoroon ñëw jàmbur ne ko tey. ñëw tey mu ñëw ma ne ko noonu ah nangam ak nangam suba noonu bu ku ngoonee dama naan kii de moo ngi ñëw dama ne sax booy xool leen ma sax bu dee day ñëw rek ma am fu ma nëbbat <laughs> léegi ah, distance boobu noonu uh-huh. yaa ngi am waroon def loo xam ne sax di nga ci gañe dara uh-huh. léegi finalement loolu da nga koy ñàkk d'accord ñu jël ki ci ligne bi dellu si waat ñu ngi jéggalu ci dog bi salaamaaleykum aleykum salaam soxna si na nga def ah, alhamdulilah yaa ngi seetaan dénkaane waaw maa ngi seetaan Mm-hmm. looy participer. ñu bëggoon wax ci ci thème bi rek. waaw euh, gaa yi nga xamante ni duñu seen kàddu. Mm-hmm. daf may fàttali benn région bu ma nekkoon. fin bi sama copain lu ma joxoon benn waay pour mu defaral ma ko. mais finalement dama bougé affectation bàyyi ko fa rotin parce que sàmm kàddoom ko ba ni laa ko ñàkkee donc loolu daal war ci gën a wax pour gars yi bàyyi loolu daal rafetul. dañu mujjee ñàkk sa alal ndax loolu. Mhm. maa la sant jërëjëf. dëgg la jërëjëf. ñu bari ndeysaan dañuy mujj gedd. <laughs> da ngay mujj ren ne ko jël fa la fa bàyyi rotin <laughs> rotin. day mais mais Oustaz Makhtar. Euh. je pense que thème bi gën na sori loolu sax. dëgg la yow am na question bu ma lay bu ma lay ñëwal ci oto yeeg mécanicien yi <laughs> xam naa da nga seeti léeg-léeg mécanicien. Euh, waaw nga ne léeg-léeg mënoon nga gagné ci diggante boobu ngay làqatoo ci diggante boobu ngay làqatoo. léegi finalement da ngay dem naan da ngay jéem a daw kenn nit si domaine yëpp nag mhm. da ngay am sens interdit da ngay am foo xam ne dootoo fa jaar am numéro téléphone yoo doon wuyu am numéro téléphone dootoo wala sax nga fay sa téléphone am keneen ku la waroon woo si sa yeneen nit sax pour jëriñ oh, mais yooyu yëpp dala koy yàqal sàmm sa kàddu ñàkk sàmm sa kàddu pour man di gën a bëgg lu gën a bari la waaye dalay gën a tuutal mm-hmm. dalay gën a tuutalal sa lépp mm-hmm. ndax tey facteur yooyu bu demee ba nga xamante ne yow mënatoo see jotee mm-hmm. yaa ngi commencé di wàññi parce que nekk naa si kii yu bari xam nga da nga ci xam loolu nit moom sàmm sa kàddu sax ak yokkute la moom lu kenn mënta dindi ndaxte dootoo am mooy li ma la wax si bay bi am na ñoo xam ne dootuñu dëpp dellu fañ dëkk même buñ fa amoon lu ñu soxla ndax ñàkk faa sàmm seen kàddu nangam naa xam ne mënatuma faa dem am ñu lay jub ngay sëgg Mm-hmm. am ñu lay wax loola metti sax ci say kanamu naw la mm-hmm. yëpp nga sëgg mm-hmm. ndaxte nekkoo ci dëgg ñàkk sàmm sa kàddu sa personnalité personnalité da koy wàccee sa lépp moom ñàkk sàmm sa kàddu dala koy dala koy manqué mën nga bañ a am lépp nga moom sa bopp fu la neex dem ku la neex wuyu foo neex toogee boo nekkee ci atelier même bu fekkee amoo sax benn ñëw nga toog nekk à l'aise lu la neex nga def mais am na ñoo xam dañuy moom seen atelier ba pare duñ fa mën a toog bari na si teer bari na sax bari na bari na duñ doo ñemee toog ci ak maanaam euh, euh, apprenti yi rek nga fay bàyyi chaque instant am na koy ku ñëw rek ñu lay waaw wala boo ñëwee fi nga jaar beneen porte am looy nëbbatu wala nga taxaw ne nga xam ne yaa ngi perte yu bari wala sax wax ne damaa feebar damaa feebar damaa feebar wala rey wala rey sa sa sa mbokk ne dëj laa demoon dëj laa demoon te demoon dëj mais mais apprenti yi ngay former est-ce que ñoom nekk lu dangereux ñu jàngee ci seen patron wax mu dëñ wax mu dëñ ah yéeme na de. xanaa kay yàlla dimbali la rek. ñu màggate noonu noonu la ñuy <laughs> doxalee te bu ñu amee at xam naa la li nga ciy li nga perte moom bari na lool lool lool. ndax diggante bi ngay dawee am na ko mënoon a ñëw am lum la jox. diggante bi ngay bañ a wuyoo téléphone am na ko waroon a ñëw am lum la jox lu doy waar la. Louise léeg-léeg oto yi. <laughs> garage yu bari da nga fay fekk oto yu bari garé yoo xam ne seeni i borom gedd nañ ko. Mhm. te dara a la ko lu dul changer pe sàngam nangam ak nangam ñu dëkk laa jox délai te du mos a euh, sotti loolu noonu tamit ci mécaniciens yi loo leen di wax. waaw mécaniciens yi moom du ma leen wax waay lañ. bàyyi waay lañ yow Sénégal yi mënuñoo nekk say waay lañ. Eh, boo ko defee dañ la yàqal bu nga ne dañuy wax le temps euh, booy am ut mécanicien utal mécanicien bu jub koo wóolu parce que mécanique dafa graaw c'est-à-dire que mën lii sax ñu defaral la loolu ba pare génnee beneen pièce si sa sa affaire si sa oto nga xam ne mu leer leen yow dans deux semaines maximum di nga ñëwaat mm-hmm. am na nit yuy liggéey loolu loolu si wàllu mécanique si wàllu lépp am ñoo xam ne yow boo xasee ba commencé jëflante ak ñoom non doo jógee doo jóg si ñoom dafa mel ni sëriñ bu lay ñaanal rek mhm. am na sëriñ yoo xam ne tamit boo nekkee ci ñoom noo doo mucc jóg ci ñoom doo jóg ci problème ñoom dañuy réglé jox la bee <laughs> suba nga ñëwaat ci bii donc <laughs> moom ak ñàkk respecté si kàddu ci nit la rek nit mooy jub wala mooy ñàkk jub mhm. waaw am ñoo xam ne boo commencé jëflante ak moom muy mécanicien beeg mécanicien yi des fois tamit da ngay am mécanicien doo jóg ci moom chaque deux semaines nga dem mhm. chaque trois semaines nga dem ndax lii day yàqu dans deux semaines leen yàqu. te lépp ñoom ñoo koy organiser ñoom ñoo koy doxal ba nga xam ne. wala pièce bi waroon a baax carrément. mu jënd loola bu baaxul xam ne fii ak deux mois. wala exactement dañ lay dina bi temps lay jar par exemple xaaral dem défoncer jëndal la venant bi vingt cinq mille lay jar. ñu dem jënd boo xam ne. dix mille. dix mille lay jar wala cinq mille lay jar troisième choix loolu quatrième choix ñoo defal la ko.

ci seen li ñu garde banque ba gedd bàyyi ko mhm. et ça c'est un fait boo xoolee dix personnes te dafa ñaaw boo xoolee dix personnes yoo xam ne dañu génn àdduna peut-être kenn rek mooy mujj daw ci ay pension waajuram ci ay compte bancaire waajuram ba mujj ko jot te kenn du ci wax di nga dem tribunal di nga yëg wàcc dañ la renvoyer mille fois dinañ dinañ la utal ay audience dinañ la def dañu ko def ay cas dañ lay utal ay yow ko jaral finalement. kàddu gu dañ googu la système la. système la mais nit la parce que système bi nit moo nekk ci système bi nit mm-hmm. je pense pas que nit bu génn àdduna papier yëpp taxaw pension am ñu war ko fay lu ci compte bancaire am war ko jox mu man bu mais c'est un fait quand même mm-hmm. ci wala administration ci wala administration ñu bari ñu bari ñu bari dañuy dem ba yek wacc yek wacc yek wacc do leen ko jaral non la bayé sen alal wajur non lañuy la bi waaw non lañuy bayé sen alal wajur non lañuy bayé sen alal seen mbokk mais léegi alalu jambour bobu teud ci souf fu mu nekk. Mhm. ku ci jëriñoo fu muy ñak sa bu kaddu mi ci ak nga ci. Mhm. donc ay fee la yo xamné man yoy ñoma gëna choqué. ci ñak kaddu parce que lu yomb jënti la. Mhm. lu wara gaaw li jënti la parce que nit bu ko laaj certificat de décès. laaj ko papier banque am yëpp laaj ko carte d'identité wax dëgg yàlla war nga ko mën lijjanti. ndax bokk na ci sàmm sa kàddu ci administration xëy si nekk ci connexion bi. bokku ci bàyyi do bàyyi bàyyi dossiers yi. bokku ci ñàkk sàmm kàddu weesuwul nga war a xëy 8 heures ñëw 9 heures ndekki ba 11 heures. jël temps. waa jël temps ndekki ba 11 heures bu 11 heures jotee nga liggéey tuuti 13 heures pile yow jël pause 3 heures nga war a ñibbisi 3 heures demi ngay ñibbisi. boo ñëwee trois heures bu nekk nga dugg fa mel ni Louise waaye na ngeen def waaye na mun naa leen <laughs> ay waaye na mun naa leen ba quatre heures jot cinq heures nga wàcc commentaire ci làmb ji commentaire ci làmb ñàkk respecté sa kàddu weesuwul tamit nga maanaam ñu xam foofu ne contrat bi kàddu la moral la bi nga signé exactement ne da damay liggéey heure yooyu nga xam ne moom nga signé kàddu la heure yooyu noonu la ci liggéey nga war a nekk wala nga mel ni mayte rek tamit xëy mayte mel ni mayte xëy sa biir dugg ma ngi lay dégg. waaw taal sa lampe taal sa clim taal sa télé. tegale sa tànk teg noonu da ngay dem bàyyi yëpp muy takk tëj sa bureau dem hmm. fayoo courant bi. Eh. loolu yëpp di wàcc waroon na fay clim beeg. ventilo yi wala lépp bàyyi ko noonu mu tàkk yëpp bàyyi noonu ndax fayoo waaw dem gis nga boo boo boo boo dëkkee côté mbaaw yooyu ak côté jam ñaajo Rufisque yi booy ñibbisi di xool bâtiment administratif yu bees yi. Hmm. seetlu ngeen loolu guddi gi day tàkk. Mm-hmm. mën nañu waa wax ne sécurité lañ ko defee ñoom. Mm-hmm. mais du yoon c' est inadmissible bureau bu kenn nekkul muy takk ba fajar ba fa tàmboon 18 heures lamp yi tàkk na ba fajar day ko ni di tàkk. sécurité la du yoon. sécurité <laughs> d' accord Louise xam naa danaa arrière tuuti li des si waxtu bi sax bareetul ak mère Thiama. Mm-hmm. démb dikkoon nañ ci. Euh, ci yéen euh, waajur yi ñi nga xam ne yéen a am doom ju toll ci sëy. Euh, Oustaz Mouhamed Diop day ñëw bëgg sa doom. wax ak yow. nga accepté wax ak euh, papay xale bi. Mm-hmm. jëlal yéen ñaar ñëpp ngeen accepté. jëlal beneen misaal. <laughs> ah Oustaz Mouhamed waaw dafa dafa kii bi d'accord c'est Ibrahima Seck day ñëw bëgg sa doom. jëlal Samba Sarr jëlal Samba Sarr. <laughs> déedéet. jëlal Samba Sarr mu kenn du jël naa jël sa Ibrahima Seck. kon nga jël Mansour bàyyi sa Ibrahima Seck mi mën a ñëw bu subaa. <laughs> tey ay ñëw boo xëy ñu ko. jëlal Mansour rek. bàyyi loxo yi. bàyyi Mansour jëlal Mansour mu jël sama téyel léegi ñëw wax ak yow ba tënk kàddu gor wax ak moroomi gorom mu toog rek am waa ji ko doon bëgg jógee koo bitim réew ñëw ngeen toog rek yëg ne dikk na mu ñëw jaar fa nuyoo la cent mille nuyoo papa ji cent mille ne leen danaa fi jaaraat jël xale bi yëkkati enveloppe bu cinquante mille may ko mu ñibbi kenn ku nekk di wax teraanga jëm fi bàyyi mais ngeen génn ci seen kàddu ngi ngeen tënkoon ak Ibrahima sekk loolu noonu tamit Sénégal ñu ngi koy dund loo ciy wax waaw loolu moom Oustaz Makhtar nee naa sa loolu du ñàkk sàmm ka loolu goree di la mhm. loolu goree di la gisoo mag ñu jëkk ña signature amul woon dara amul woon kàddu moo amoon mhm. sama maam danaan bu loo ragal taxawee li nga ruus taxaw dugg ci li nga ragal ndax gàcce baaxul lajjoo la moo taxaw mu dem kàddoom ndax kàddoom jiitu na bi ko sëñ bi mag bi ne bàyyi lépp nga joxal lu ne da ko sama kàddu jiitu na ma il faut ma dem ci bi il foog ma dem kàddu boobu moo tax moom mu dem dem def li muy def te su toogoon sëñ bi dina ko jox lu ne waaye moom ne na kàddu gi mu waxanteeg ne moo tax mu dem waaye lii nga wax léegi Oustaz Matar loolu dinaa du kàddu sax loolu dafa bokkul du ngor ngor ak lii dafa xam ne dañoo bokk ndey te bokkuñu baay. mais waxal ak ñi koy dund am na xale góor yu am déception tey loolu loolu dem dugg ci kër goo xamante ne dañoo amul ngor ndax xaalis Oustaz Matar fi lañ koy bàyyi. déggoo kër damay toog di xool damaa toog di analyser ñi fi amoon xaalis yor ay oto yor ay immeuble yor dul jeex ana yu tey ñu ngi ci suuf ngor ngor ak kàddu bu ko nit amulee yow bokkatoo ci man pour man bokkatoo bokkatoo ci jamono parce que sa doom am ko koy bëgg di ñëw di fa ñëw ba ngay waxante nit jóge bitim réew rek indi xamoo xaalis fu mu ko jëlee te gis nga kooku indi xaalisam day xam ne yéen ay ay waajuru xaalis ngeen mun na piétiner seen doom fay di ko jox xaalis donc man nee naa ñooñu man genre yooyu man maa fi gën a bëgg koppar. ak ñaata la may jox ndawtal. ñaata la may jox warga man je suis pas nga. boole garab gu la sutul du la may. may ker terme yooyu la ñuy utiliser. garabu yàlla rek moo mën a maye ker. nañ bàyyi façon boobu man lool dama ko mës di wax. gis nga Oustaz Makhtar ku nekk ak niñ la yare liñ yar bi ku nekk ak niñ la yare bi ngay màgg nga gis yow sa waajur du ñu sëy yow ki lay bëgg ak ñee ñu doon a bëgg sa papa fi mu la jaarale yow boo màgg nan nga jaarale sa njaboot ñun boo doon alal rek tax ñuy sëy kon duñ sëy suñu jëkkër yi mm-hmm. ay multimilliardaire ngay sëyal ndax ñi lay bëgg daana day ñëw gis sa waajur ñu ko man sa doon sama papa da daal wax ni man ngor rek ak diine ngor diine yërmaande ndax du dara sama doom ñu ngi añ ñi ngi reer ñi ngi nekki def naa leen dans de bonnes ku ma gën sax laa leen utal waaye bu ma borom étage borom oto te doo leen may yërmande ndax dañoo doy waar man mi donc commençant par man mm. donc ñooñu di xaar alal seen doom ñooñu dañoo juddul riche gis nga boo juddoo ci pajaas boo màggee mat laa ngay jëkk a jënd waaye boo juddoo gis lu baax gis nga bu ka indi ay milliards junior yi bëgg sa doom da nga koy may junior ndax moom nga waxanteel. te léeg mbokk lay doon ki nga dàq. day nekk nga jox kàddu ba mu dëgër am na ñuy dem sax ba jàpp bisu takk ñu fomm ko. ci waaye xoolal xam nga lu ñuy mujjee ay. lii rek la ñuy mujj toujours loxo ci ay bu ma yëgoon xale ba nag am dëgg ci yow te xool doom jooju day lamb. bu sëy bi yàq day lamb d' accord jërëjëf xam naa loolu moom suba faaw ñu dikkaat ci Lewis ndax euh, lu yaatu la. Mhm. Euh, ñu jël Abdoulaye ci titre yi studio 2 Abdoulaye salaamaaleykum. maaleykum salaam. Euh, na nga def na moon nañu la. foofu sant yàlla baax. yaa ngi am jàmm bu baax. ñu sant yàlla alhamdulilah. célibataire yi de jot na nag fi mu toll nii ñu. <laughs> am na loolu la waxoon ci suuf. ah keroog bi ñuy yëg. Ah. ah nee naa la maa ngi ci yoon bi soreetuma. non nga yegg nag laa bëgg nekk ci yoon rek moom li des bëreetul li des tuuti rek. d'accord euh, <laughs> benn waxtu am na lu ñuy xaar lu mu doon. waaw bokk na ci bopp xibaar yi jëm ci procès Khalifa Ababacar Sall mi nga xam ne ni ki démb la amoon euh, ci tribunal bu Ndakaaru juge Demba Kandji nag moom daal di gàntal lépp lu jëm ci euh, càkkute fukk ñi di défense bi ngir ñu da dàqandi lu jëm ci wàllum li nga xam ne moom moo di atte boobe ñu doon def ci cour d'appel ginnaaw ba mu xam ne nag moom juge Demba Kandji kenn dossier bi ñu ko jox ci cour ba daal. amul benn yoon buy fësal ni euh, CEDEAO joxe nañ leen sañ-sañ ngir ñu dàkkal lépp lu jëm ci tot euh, toppeef gi ngay gi ñu toppee wala boog procès bi ñu amal jëmale ko ci euh, Khalifa Ababacar Sall partie civile bi nag ñoom daal di jàpp ne du lenn lu nag ab tentative boo xamante ne défense bi ñu ngi ko bëgg def ngir yeexal lu jëm ci jugement bi ñu amal ci appel bi. ci jamono woowu wàllum essence bi euh, buy mel ne nag euh, ci yenn ci barab lu ci mel ne Elton foofee dana fa manqué lool euh, mu nekk loo xamante ni nag ñii di dawalkati daamar yi indi na gàllankoor ci ñoom waaye directeur général ba daal dina ci indi ginni jàpp ne nag moom lu soxal li jëm ci wàllu woowu wala bokk lu jëm ci wàllum train express régional boobee sa kër yaraax ñoom daal di ab train bu yees boo xamante ni mi ngi war a jaar foofee xal yooyu nag mu war a jaar ña ca loru ñoom ñooy yëkkati seen kàddu dëgmal ko ci njiitu réew mi ngir mu wàllu leen ndax nag ngay bëgg a yàqule euh, jamono boobee nag lu jëm ci wàllum essence nar euh, moo di bërëb yi ñuy wax Elton foofee nag euh, dawalkat daamari ñoom am nañ ci tiitaange waaye terewul directeur général bi na indi na ci loo xamante ni xëy na dinañ ci indi saafara naam dawalkat daamari jàpp nañ daal lii yàgg nañ koy dund ci wàllum ñàkkum gasoil soxool na leneen lu jëm ci wàllum nag tàggat yaram ginnaaw génne kàddu yi nga xam ne Augustin Senghor fasaloon na ko jëmale ko ci coach Aliou Cissé mi ci bopp équipe nationale bi eh, bi nga xam nag mooy gaynde yi eh, am na ci ñoo xam ne nag àdduna ci Sénégal yi jox nañ seen eh, kàddu ngir nag ñu xool naka lees mën a def ci wàll wii ñoom la ñu gis sax mooy Aliou Cissé ab contrat la xaatim ak ñoom tey nag CAN 2019 da caa bokk loole nag incha allah ak yeneen ci ponk oustaz moom lañ fas yéene faram-fàcce une benn waxtu bu jotee ci kanam tuuti. Euh, jërëjëf Abdallah ñu sant la gërëm jërëjëf delloo la euh, cant gi tamit ak ñi kon benn waxtu ñëpp a lay xaar incha allah incha allah jaajëf am na solo lool macha allah merci shukran Abdoulaye boobu la woon ci titre yi incha allah treize bu jotee bu leen toxal seen seetaan ngeen kar ko ci DTV ak euh, li ci bopp xibaar yi incha allah mu mu faram fàccee ko mu gën a yaatu bu soobee yàlla. Sey Ibrahim sekk mm-hmm. lan mooy sa dénkaane waxtu wi jeex na. sama linkaane daal mooy ñi daal liggéeykat yi nañ sàmm seen i kàddu ak liggey metti boy meunti yeungu rek sam sa kàddu mom dalay yok rek way dula wañi hmm. ah parce que man bu ci gëna rek dañ lay doya dal dal, da gis ko xamante mu dox ci mbedd bañ la ko poñeeraat mu wax mu ne no bayil non hmm. parce que mom mom mo xam lam lam def ndax samul kàddam. wa ma ngi kontaan ci invitation bi. Hmm. di gëreum seigne Ablaye modone mi ma wo pour ma ñëw fi bu baax. sha allah ak sama xarit Aliou kan Abdou mbaw ñom ibrahim ak sama mère dugg non sax fan nga am atelier. Cité Fadia. ah Cité Fadia Cité Fadia wa d'accord ma ngi leen di gërëm ñom ñom mama idiatu ak wa Cité Fadia yépp mhm. xam naan sama limé damay mais ñëpp rek yu sa ma ngi nuyu ñëpp dal di gërëm. d'accord accord jërëjëf. jërëjëf jërëjëf Cheikh Ibrahima yow ñu sant la gërëm la ci wuy ci bi jërëjëf. Mhm. yoon du yem ci ben inshallah bu yoon jéxul waaxu sel du jéx inshallah mère Thiama waxtu wi nee pëng looy dénkaane. ah xana dal di leen wax dal nit dal day fa am ci la sa personnalité di yokke ci la sa fula di yokke ci la si yëpp di kon moom mm-hmm. ñu jëkk ñi kàddoo tax rek ñu bëggoon leen mm-hmm. waaye léegi moom macha allah suba na na nga ñëw ñëw indil ñu ko fii <laughs> tey lañ la ko jox benn <laughs> Louise looy tàggatoo waaw sas Mactar li muy wax rek mooy nit kàddoom man nag eh, may nuyu soxna Zeynab bu baax di nga mm-hmm. wax ne mi ngi nii maa ngi ko gelu ba jeex tàkk bu muy defati bu koy defati na ma takkal morso mm. ma nga soxna Zeynab bu mel nan ah dama dakkar morso rek moom xam na morso bi. mu jox na morso bi. yow kol la la a muural. kol. après. Hmm. kol a ngi nii di. <coughs> bi kol kol kol xanaa kol crési yooyu la <laughs> Oustaz Mahamad looy tàggatoo <laughs> sa ndénkaan. waa di wax ni kaddu mooy doomu aadama. Hmm. gor ca kàddoom la wolof daan daan wax même yàlla subhanahu wa taala ci alquran ñàkk sàmm kàddu da koo niroog leeg bàyyi ma inna charra dawaabi inda allahi alladina inna charra dawaabi inda allahi alladina kafaru fa hum la yuminun alladina ahadta minhum fi kulli marratin summa yanquduna ahdahum di wane ne ñàkk sàdd sàmm kàddu dafa wuuteeg nite nit ku nite day sàmm kàddu macha allah jërëjëf Oustaz Mouhamed jërëjëf Lewis jërëjëf Cheikh Ibrahim Seck jërëjëf Mère Thiama jërëjëf caméraman yi jërëjëf waa Rési yi sàmm kàddoo ngi noonu arab bi dañuy wax ne alxurru xurru maa lam yatakallam ida qulta naam fa anjisil waada inna alxulfa dam inna laa baada naam qabixatun fa bilaa fabda ida xifta nadam gor daal bu xasee ne waaw waawam dafa war a dëgër boo amee looy jiixi jaaxa sax ne déet ba noppi def jëfu waaw moo gën ne waaw ba noppi jëf jëfu déet kon lii lañ leen indiloon tey ci seen dénkaane ba subaak jàmm Seyda Zeynab dana ànd ak yéen ñu yendoo jàmm fanaane ko yeewoo ko dellusiwaat ci ndénkaane ak jàmm jàmm ak jàmm ba subaak jàmm wasalaam amateur Hadim Production promoteur de l'avenir modèle dellu si journée espoir le 10 juillet